balaa très bien merci de nous rester fidèles vous êtes la 2STV première chaîne privée culturelle du Sénégal la chaîne euh, panafricaine euh, dans ce matin euh, c'est à nous quatrième numéro de la ñu ngi ñuy bàyyi la page Facebook muy 2STV l'officiel mais aussi remercier les Sénégalais yi nga xamante ne c'est des mélomanes qui nous suivent grâce à rajo bi nga xamante ne moo woodu réew mi nga ne ñu la ñuy dégluwee chronique yu am solo yi nga xamante ne bés bu jot ñu dégteel leen ko dans matin euh, c'est euh, suba bu jot nag euh, ñun ngeen di àndal ngir ñu ànd jox leen mbégte bu baax a baax mais aussi jox leen lépp li nga xamante ne rek dafay mucc ay ba tax na tey Moussa Sène ñëw na ànd ak ñun dans sa chronique santé nga xamante ne tous les jeudis mu amalañ ko ngir yaatal bu baax a baax lépp li nga xamante ne rek soxal na askan bi tey nag Moussa Sène dalal président bi nga xamante ne mooy président collectif des pharmaciens privés bu Pikine muy wuyoo docteur Mbaye Sène docteur Mbaye Sène euh, du l'international nag bokkul ak administrateur sport inter mais docteur Mbaye Sène mi dañ euh, ko ràññee bu baax ci wàllum euh, santé rawati ci dolli ci wàllum pharmaceutique donc tey nag ñu war a waxtaanee la promotion la profession pharmaceutique ngir muy indi ñu ci ay leeral ndax jamono ji ñu génn ci ginnaaw gis nañu jafe-jafe yi nga xamante ne jot nañ koo dund donc dina ci indi ay leeral ngir ñu waxtaanee ko bu baax a baax laasana le pertinent dans ce matin c'est i def na mëninam comme ñu koy tàmm di def defee suba bu jot mu ñëw nag tey indil ñu euh, waaju waaju waaju waaju garaaw waaju ñàng ah waaju tàng nga indi tey hmm? Basiru Samb ku ko déggul xam na c'est ça ci engagement ak mhm. détermination bi nga xamante ne moom la àndal. muy koo xamante ne euh, moom mooy directeur de cabinet du maire de Grand Yoff muy Khalifa Babacar Sall coordonnateur des jeunes khalifistes euh, ndax euh, après 900 jours Khalifa Babacar Sall nekk ci prison Rebeuss ñuy wax nag li nga xamante ne jëm na tamit ci wàllum inondation foofu ci Grand Yoff ak li nga xamante ne bàyyoo ko lambaaw la lam. lamboo na ko ah, Grand Yoff Yoff moom man kenn du ko nettali Grand Yoff moom dama ko maîtriser bu baax a baax xam nga boo dëkkee HLM Patte d'Oie muy nekk une benn cité boo xamante ne 316 maisons la moo Grand Yoff ñoo def nii dëgg la du dëgg yaa ngi am jàmm maa bu baax a baax maa ngi lay ziar Eh, di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu sénégalais yi nga xam ne yëpp ñu ngi seetaan émission bu am solo bi. Hmm, jërëjëf muy ce bu ñu xëyee bala ñuy dem bureau sax même bu dee quelque temps daañu ko yërndu. macha allah parfois a tardé. ça prouve simplement que liggéey bu hmm. askanu Grand Yoff bi xam ne tey. Hmm. am naa yaakaar ni ñëpp a ngi toog jàkkaarloog des ah loolu moom kenn waxatu ko. loolu moom macha allah mais man dafa am benn affaire boo xam dafa ma xaw a jaaxal plateau télévision koo ci nuyu mu def même chose. Uh-huh. ah maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau maa ngi man comprendre woon xëy na moom du ko def Baïssène euh, <laughs> docteur. président noo def. maa ngi fay naka suba si. alhamdulilah président ba bi nga sol moom. xaa ci mën nga koy maye bu ñu bari. waaw bii dama ko fi bàyyi su ma. ah ah waaw waaw du blanc Ndiaye nga de macha allah. naka yi tey. ça se passe bien ça se passe bien bien dormi. waaw waaw c'est pour une première fois nga def émission matinale ou mooy. Euh, émission matinale c'est la première fois. très bien ah loolu kon dina waaw bon euh, di leen sant di leen gërëm ci invitation bi. très bien di wax ne. ñun dañ fay nekk pour population bi. Mm-hmm. donc ñëw tey pour waxtaan ak ñoom pour ah. ñu gën a xam kan mooy. kan mooy le pharmacien. kan mooy le pharmacien kan mooy le lay def ba doon pharmacien. exactement waaw yooyu am na. yooyu yëpp ay jaar jaar la ay ñu war a leeral la. yu nit ñi xam ko. waaw ak yenn garab yi nga xamante kenn mënu la jaay te amoo ordonnance. waaw loolu yëpp ci liggéey bi la bokk. très bien loolu yëpp dafa bëgg di jënd ay garab te du am ordonnance de. <laughs> boo waxee mu ne si mais. non Moussa ci kër gi la bokk. ah waaw <laughs> mais mais ça pose un dama bëgg ah, Ah. donc des fois loolu la ñuy wax nit ñi naan dañu naan kii dañ koy jaay jaayuñ kii alors que loolu amul ci amul ci amul amul ci pharmacie d'accord d'accord très bien amul ci pharmacie euh, maquilleuse bi mu tudd Nafi Nafi Nafi dañuy indi ay mouchoir yu bëri. Mhm. du dëgg waaw parce que suñu gan yi dañuy soxla mouchoir bu bëree bëri euh, Kumba gisee moo nekk sama kanam noonu euh, defe naa moom léegi mu ñëw ci plateau bi mais en attendant ngay ñëw Kumba indil ñu ay euh, yi nga xamante ne ñoom ñuy seddal waaye tamit day baax léeg-léeg laasana xaw a papu ni boppam tuuti laa la waaw waaw waaw fii parce que dafa xiin te dafa xiin waaw mais si ndox des na des na des na na na bàyyi ba ñu pare <laughs> ba ñu delluwaat suñu yëf waaw après sotti mu soog a sottee ko Moussa ñu ngi lay ziar naka suba si baa yaa ngi am jàmm noo koy dundee. sant yàlla bu baax. maa ngi am hmm. uh, tawfeex di leen ziar di leen ñaanal ah, da nga nuyoo yow tamit. kan man ah Moussa xam nga ne sa matin du ñu nuyoo invité yi mën nañu leen bàyyi ñu nuyoo. mais gars yi du ñu xam nga ni salaamaaleykum foo ko romb wax. Hmm. du farata eh. waaye fay gi farata la eh. loolu la diine wax dëgg la ay eh, ca nit du yow dama ne la dama ne la noo koy dundee nga ne ma ni ma koy dundee mooy mbégte santati bërëb yaa man daal laasara laa ànd déet ma man it damay nuyoo xam nga réewum jàmm sant la nekk xam Sénégal réewum teranga la ah. nekk ci réewum jàmm sant loolu amul fii non mais am na fii plateau bi plateau teranga la plateau teranga bi mais dañ ne euh, beaucoup plus de pragmatisme euh, pour que euh, ñu ñu am na fii buñ duggee yow yaa invité yow yaa invité directeur cabinet wu. waaw chef de cabinet euh, man maa juum ci kii ah, chef de cabinet chef ko invité bu bu Khalifa Babacar Sall ba pare nga def APR. Euh, mooy maanaam yow da nga invité opposition ba pare ne ko tey man pouvoir la waaw nii nga def. Euh, président Macky Sall moo la est-ce que président Macky Sall moo moom. couleur marron ak beige moo ko Ah, ma abi euh, kan moo jëloon couleur bi euh, def ko euh, kii mais ñun ba ñu juddoo ba léegi fekk nañ fi pain chocolat di ko lekk. on dis non on en chocolat la. mais kan moo jël valoriser ko xam nga maître Abdoulaye Wade. Hmm. moom moo jël valoriser bleu ak mboq mi muy jaune bi. ba foo ko sol gars yi yow yaa ngi mel ni parti démocratique sénégalais nga bokk. donc Sénégal loolu dañ ko gëm naa ni tey bu fi bu fi je pense bébé chou la bu fi toogoon dina la wax tuuti xam nga man bokk nañ ci couleur yi may gën di sol. bébé chou bébé Chou. waaw ah, ak keneen ki évasion. évasion donc xam nga ñoom ñaar dañuy dox ci tendance ak mode ak yooyu noonu. man j'aime bien ces couleurs là parce que dafa ànd ak sama yaram. ah dafa ànd ak. et le bleu aussi boo ko ah. seetloo di nga xam ne loolu rek laay sol. moo tax nga def marron bi nii ak bi. bi defe naa ku ma gisee mooy euh, mooy euh, yor explication bi. parce que tailleur moo fi génn. oh la là yéen daal da yéen daal ay star ngeen yéen daal dañu leen di habillé daal yéen daal macha allah yàlla na yàlla fal ca. amiin ah, ku ma gisee kañ lay jéggat ñëw dugg ci plateau bi toog euh, bu ko defee ma waxtaan ak moom tuuti ndax tey moom li muy war a waxtaanee dafay jëm ci wàllum société société bi nag yi koy yitteel dëggantaan moom la war indi tey nag li mu war a teg ci table bi ko waxtaanee sur ce plateau muy euh, permis de conduire yi nga xamante ne mooy permis euh, numérique euh, permis numérisé yooyu noonu Kumba def ci bëgg waxtaan ba bëgg laajte lan moo tax sénégalais yi di bàyyi ba mu wees uh-huh. ñu doog a daw si di ci ñëw mais aussi <laughs> est-ce que cette communication jaar na fi mu war a jaar pour que sénégalais yi mën a nekk au courant de ce qui se passe loolu yëpp bëgg nañ ko waxtaanee incha allah ànd ak ku gisee léegi léegi li ñuy def mooy dañuy ànd ak Moussa Sène ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc dans ce matin c'est à jaajëf Nicolas ñu àddu jëm ci wàll bi nga xamante ni moo di flash bi li ñu ci euh, fas yéene nag euh, njëkk daal di waxtaane moo di jafe-jafe nga xamante ni dañ ko daal di nemmeeku ca nga xamante ni moo di rëbës rëbës bokk na ci li nga xamante ni moom dañ fa daal di di bakkan yu nga xamante ni ñaar la yu daal di rot ci chambre 11 ginnaaw bi nga xamante ni dañu nemmeeku ni am na jafe-jafe yu nga xamante ni daf ci amoon te loolee lépp buuxante moom moo ko daal di waraloon waaye bu ñu sukkandikoo tam ci communiqué administration pénitentiaire pénitentiaire bi jot nañu daal di xam leen ni daal am na benn ventilo bu nga xamante ni mi ngi fa woon loolu nag ba mu jotee am maasu courant moom moo waral li nga xamante ni jafe-jafe boobu am ba ñaari bakkan daal di ci rot ñu ànd ceeg Amadou Diaw pour indi ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu direction de l'administration pénitentiaire ñaari prisonniers ñoo daal di ñàkk seen bakkan ca Rebeuss ginnaaw ay mas yu amoon ci ab ventilateur ki jiite kuréel bi di Azret di dëggal xibaar bi waaye it di ko ñaawlu. li nga xam ne nag moom moo xew kaso Rebeuss démb vraiment loolu naxar la boo xam ne bi ñu ko yëgee ñun en tant que kuréel gi nga xam ne su suñu kaw njaboot la dal mu nekk loo xam ne daal vraiment ñi ngi koy mettitlu di ko ñaawlu. mu nekk mbir moo xam ne mi ngi xewee ci néeg bi nga xam ne moom la ñuy wax chambre onze chambre onze ay détenus euh, mineurs majeurs la ñu fa jënd de waxambaane ndaw yi lañu fa jënd muy jël ci lu xaw a toll si soixante détenus démb benn ventilateur moom la ñu njortu wala buuxante bu metti moo indi jëye jooju ba ñaari xale ñàkk ci seen bakkan li ni mel nag du lu yees ca prison bu rëbës ndax atum 2016 ab cong moo taxoon ba benn détenu ñàkk bakkanam bile mbir nag dara waralu ko lu dul nekkin bu jéggi dayoo parce que prison Rebeuss dañuy wax ne 600 détenus la waroon jël mais jamono ji mi ngi toll si 2600 jàpp 2700 détenus ci anam yoo xam ne vraiment xel moom nangu ko ci dëkk boo xam ne nii dañuy wax ne dëkku démocratie la te ñi ngi continuer téye doomu aadama yi ci kaso bi. ci anam boo xam ne vraiment dëppowul ak yoon mais également les dures conditions de vie carcérale yooyu yëpp vraiment lu méttee métti la loo xam ne dañu koy ñaaw chambre 11 nekk ci tiis ginnaaw ñaari nit yu fa ñàkk seen bakkan jamono ji nag néew yaa ngi ca hôpital Aristide Le Dantec dinañu amal ab autopsie ngir xam lan moo waral li ni mel. mangook ñëw desandi ci wàllu wi nga xamante ni moo ñeel euh, lii nga xamante ni moo di ak accident yi nga xamante ni day faral di am jamono ji nag dañ ko daal di nemmeeku ci lu bari rawatina nag ci tali bi nga xamante ni bés du jot wala ayu bés te taskatu xibaar yi du ñu àddu ci wàllu woowe noonu altine bi jàpp talaata gi rek nemmeeku nañ lu tolloog fukk ak ñett ci bakkan yi nga xamante ni rot nañu dara sababu ko lu dul lenn loo xamante ni nag tukkee na ci anam yi nga xamante ni noonee mbir mi daal di tëddee ci wàllug tali bi di dem beeg bi di wàllug transport sport soxna Tere Samb am na jàngat fu mu ci def. mënuñoo toog benn semaine wala fan te taskatu xibaar yi defuñu lim ci accident yi ak bakkan yu muy root diggante lundi ba mardi fukki nit ak ñett def nañu accident seen bakkan jaaree fay des fi muy xewee nag li ci gën a bëri doon Bignona Kalayaan Ross Béthio ak i Kaffrine boo jëlee ci yoonu Ziguinchor aussi fukki nit ak juróom-benn daal dinañoo ñàkk seen bakkan ci accident yi. gannaaw ndaje bu ñu amal dem ci wàllum kaaraange ci kaw wa tali bi ñuy xamal ni euh, fii ci Sénégal lu tollook 163 milliards ci suñu koppal euh, dañ koy ñàkk nax accident yi téeméer boo jël nag ci yooyee accident juróom-ñett fukki ak ñetti di amee ci dëkkuwaay yi nekk ci réewum taax yi fukk ak juróom-ñaar di xewee ci ville yi gouvernement bi nag moom ci wàllum boppam xamal na ni dina daal di jël ay jéego li ci mel ni code de la route ak i teg benn brigade miss laataal la permis di ama ci li ñu jot a jàpp nag tamit faral di yokk accident yi euh, bokk na ci. taxawaay ñi leen di yëngu ci wàllum euh, dem ak dikk bi anam yu yenn tali euh, toogee yàggaayu parc gros porteur yi ak ki ñàkkum formation bi ci auto école yi. boog soxna Tere Samb wàllu permis yi nga xamante ni nag ña nga cay wax ni 3 septembre di ñetti fan ci weeru sàttumbar dina ñëw ko fas yéene daal di nag toxal date boobee noonu ngir nag ñi nga xamante ni waroon nañu daal di amal ak coppite yeesal googe noonu du ñàkk ci biir jotaay bi ñu toog danañ ci daal di dellu si ak soxna Kumba Gise ñu àddu jëm ci li nga xamante ni moo di accident yeeg li nga xamante ni dañ ko ci daal di nemmeeku chauffeur yi ñu ci joxoñ baaraamub tuuma ñoom jàpp nañu ni daal du mbir mi ni ñoom ñoom ñoo ko daal di sooke waaye nag am na ñu ca bari ñu nga xamante ni te seq nañ ko ak ñoom client yi ñi ngi ci biir waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo leen di dawaloo di transporteurs yi anam yi nga xamante ni ca lañ leen teg ñoom ŋàññi nañu lu ni mel jox nañ ko ay kàddu ki nga xamante ni moo di sox euh, Sayer lañuy ñuy daal di teewlu moom Sayer Bodian chauffeur yi yàgg nañu leen joxoon baaraam tuuma ci accident yi tamit ñoom kese la ñuy teg ay daan waaye it borom oto yi dara du leen ci fekk. maanaam ba accident saa amee dañuy dem na chauffeur chauffeur chauffeur mais chauffeur nekkul transport en commun rek la def. chauffeur particulier chauffeur yëpp yëpp chauffeur waaye nag euh, chauffeur dafa yotol saabu yoo xam ne nii chauffeur chaque fois dafa war am comportement boo xam ne nii di yoon teg ko si yoon ni ñu continuer doo ko doubler tegu fi nga war a tegu nga dégg parce que tamit bu ñu jënd boo xoolee bon oto bi doo jënd oto bi daa seet koo xam ne nii. nekkul nekkul benn benn responsable nga jox ko sa oto kooku tamit accident bu lay woo léegi yow moom la ñu woo parce que moom moom ay kayitam kayit kayiti oto bi ci aw ci ay aw turam la nekk moom ko téye enquête ko na ko yow oto bi yaa moom yaa ko jënd yaa ko jox chauffeur bi chauffeur bi def na accident kan sangam mais chauffeur bi dinañ ko teg ay sanction dinañ ko teg sanction dinañ koy jël dinañ téye par même même même même même bu fekkee moom moo tooñ tamit assurance moom mooy fay ki nga xam ne moom moo yàqu leen waaw waaye nag tey moom lu tegul ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñoom looloo waral sax ñu xalaat ni chauffeur kenn joxatu ko ak ci mim réew waaye it ak kàddu yu bon la ñuy teg seen kaw. accident moom ñooñu loolu moom dañ ne chauffeur ñi ko ba xëj na bëriwul te chauffeur ñëpp ko war a bëri parce que tey jii fu nit mën a déplacer tey nu mu ci mën a doon chauffeur moo lay yóbbu soit kuy dawal avion soit kuy dawal oto soit kuy dawal sareet sax lépp chauffeur la. mais loolu moom xëy na yàllaa leen ko jagleeloo rek chauffeur kenn bëggu ko parce que da ngay dawal dégg ay client ñuy wax ci ginnaaw di saaga du xaste du wax lu ne mais nag ab chauffeur dafa war a muñ loolu même boo ko degee itam da nga war a muñ dawal dem accident bu ñëwee dafa war a ñëw dafa war a ñëw parce que chauffeur dangay daw panu toj te da ngay jënd panu bu léegi monté ko mën nga daw sans nangam panu bi toj te boobaa boobu perte équilibre problème mën na am. chauffeur yi ànduñu benn yoon ci doxalin askan wi bi leen joxañ baaraam tuuma ci yenn ci accident yi ak it yenn kàddu yu bon yu ñuy teg seen kaw. mangook loolu bokk na ci flash fu tënk bi nga xamante ni jot nañ leen ko daal di jébbal ci lu jàll jëm ci wàllu xibaar kon Nicolas bu paree ñu jàll ci wàllu revue des titres. jërëjëf Moussa Sène ñu ngi lay sàdd bu baax ci lépp li nga xamante ne fësal nga ko ci xibaar yi ci kaalaamay kocc comme ni ñuy tàmm di def suba bu jot ndax leer na lañ ne dans ce matin seetaanu ci ngeen di am xibaar yu mucc ay bu ko defee nag ñu jàll ci revue des titres avec les journaux euh, locaux euh, que nous allons démarrer avec le quotidien Moussa Sène. alors le quotidien ñëw na euh, ci Ousmane Sonko niki démb jot na a def euh, li nga xamante ni moo di point de presse janoo ak taskatu xibaar yi yaatal waaye nag dañu gis ni jeneen coow ju nga xamante ni juddaat na jàpp ni daal euh, ni nga xamante ni noonu la ko journal bi titré moo di foofee noonu nga xamante ni Sonko moom la teg tànkam nee nañu c'est mauvaise mine waaye nañu jàpp ni daal jamono ji moom sulli na coow loo xamante ni nag DG bu APIX ma ngay am loo xamante ni lu jëm la ci wàllu tont bu nga xamante ni jàkkleel na ko. très bien temps dafa jàpp ni sax de moom Ousmane Sonko noo ne maître ab euh, El Hadj Diouf mi ngi naan war na ko daal di tontu waaye teewul it 11 euh, milliards yi nga xamante ni moo ngi koy wax ci mbir mi xam leen na ni daal lu mu ci mënti doon ñu jàpp ni Sonko ba xam nag euh, ay caaxaan la wala rek dafa am loo xamante ni da ko wax waaye nag li ci leer moo di semaine bi ñu jë bii ñu jëm élage Hadj dana ci daal di addu ma jox la l'exclusif. très bien bu ko defee ni ñu ko waxee noonu la muy l'exclusif ginnaaw Dakar loolee la ñëw daal di wax ni Ousmane Sonko na jàpp ni daal fi mu toll nii moom dànkaafu na kii di njiitu réew mi réew mi président Macky Sall xamle na ni moo di décret bi nañu jàpp ni haute trahison la te nag am na leneen lu nga xamante ni bu ñu moytuwul dana ci daal di tellu siwaat la tribune bu ko defee ñu continuer di ko wëyal ak li nga xamante ne moom mooy la tribune alors moom it coowul Ousmane Sonko ci janoo ak taskatu xibaar yi la dellu siwaat scandale la nee na milliards la ci daal di tudd ni bu ñu moytuwul kon Sonko waxati na wala Sonko boog sulleeti na beneen coow boo xamante ni ma nga ca. bu ñu jógee ci euh, tribune groupe euh, des médias ak li nga xamante ne fësal nañ ko ak président euh, Pastef bu di Ousmane Sonko dañuy jàll nag ci li nga xamante ne moom mooy le témoin. alors le témoin quotidien bi dafa ñëw ci li bees moo di Sonko ginnaaw bi mu waxee 94 milliards yi ak Mamoun Diallo jamono ji nag li mu xëyee bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo jëm ci feeru Falémé bi nga xamante ni nga xamante ni nag moo di signature décret ba nga xamante ni moom lay bañ ndaxte nag nee na moom prison sax mën na ca daal di nekk kon président ma Macky Sall la daal di dànqaafu ci mu bañ a daal di signé boobu la nga xamante ni moom moo di décret ndaxte nag jàpp na ni daal lu mu ci mënti doon haute trahison daf ci daal di nekk. ginnaaw euh, le témoin ñu dem ci euh, Sud Quotidien. dellu siwaat na ci benn chronologie Sonko ak livre Sonko ak nouveau scandale yi nga xamante ni dañ koy dégg ci wàllu économie ba tax nag mu ni daal mën nañu daal di nemmeeku ni fi mu toll nii état bi ñoom nañu daal di jàpp ni Ousmane Sonko ki mbiram donte nag am na bu daal di génnee ay kaddu rek ña nga xamante ni ñoom fare ci état bi ñoom it di indi ay tontu ci moom Sud Quotidien mu ñu jugee ci Sud Quotidien ñu jàll ci enquête. enquête ñëw nee na nag Sonko engage le front ndaxte nag loolu lépp li ko waral moo di génne ay xibaar nii nit ñi doon ko doon xaar wala xaaruñu ko fan la xibaar yooyu daal di wékku lu mu ci mënti doon digganteem ak DG bu APIX di Mountaga Sy bokk ci APR jàpp nañu ni daal wax ak tontu mi ngi ci biir waaye lépp nag faire bu Falémé bi nga xamante ni nag moom la ñu wax ni mu ngi ci réew mi moom moo daal di waral caw bu ñu jugee ci enquête ñu dem ci euh, Vox Populi. Vox Populi def ñu delloo ci caw li nga xamante ni xew na ca prison bu Rëbës ndaxte nag ñaari nit di ay euh, ñoo xamante ni dañ leen a denc foofe noonu ñoom ñoo mujj daal di ci chambre 11 la daal di xewee woon bokk na ci sax lu mu daal di leeral Cheikh Ndiaye fukki at ak juróom ñett la amoon naka noonu kii di Babacar Mané 19 ans moom it la am loolu lépp dafa bokk ci niñ ko jot a waxee rek asret di kuréel gi nga xamante ni mi ngi nag taxawu ñi nga xamante ni ñoo génn ci prison yi ñoom ña ngay ñaawlu lool. bu ñu jugee ci Vox Populi ñu jàll ci Le Soleil. alors Le Soleil ñëw na wax ci yenn ci accusation yi waaye dafa ñu delloowaat ci li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak li mu wax ndaxte jëwriñ ji ñu dénk wàllu mine ak géologie moom nag indi na ay tontu ci wàllu woowee noonu yaatal na ko loolu bay wax nag ni daanaka ñoom dañu weddi Ousmane Sonko li nga xamante ni moom la xëy daal di biral bu ñu jugee ci euh, le soleil ñu jàll ci euh, l'observateur groupe Futur Média. alors révélation sur euh, détenus yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo daal di faatu ci rëbës jot na ci daal di addu ba waxee ko niñ ko waxee indi ca ay tur leneen lu ñu daal di wax rek moom moo di succession Ousmane Tanor Dieng ci boppu HCCT loole nag ñu ngi naan Aminata Mbengue Ndiaye ba le pion du président am déet lu ci mënti doon yàgg bawul dara ñu dem nag xool nag wàllum tàggat yaram ñu tàmbalee ko ak record. alors donc record ñëw na ci li nga xamante ni nag moo jëm ci Sadio Mané tey wax ni nag c'est un candidat crédible Diomansi moom moo wax loolu ci Ballon d'Or bi nga xamante ni c'est le Ballon d'Or mondial. ñu jeexalee nag ak lamb ji ndax sunu lamb moom loolu rek moom moo ko yitteel. alors après sacre bi nga xamante ni Modou Lo def ko nee nañu nag une moo di jàpp ni daal am na leneen lu bees loo xamante ni mën nañ ko xaarandi ci làmb ji lu muy doon bon bu dee ay kurpañ tamit ku ñu dóor nga waaf rek ah. très bien ñu ngi lay jaajëfal bu baax mu nekkoon Moussa Sène ci revue des titres avec les journaux euh, locaux ba tey di leen fàttali 29 euh, août 2019 mu di jeudi ñu ciy souhaité joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour santé bonheur prospérité succès et beaucoup d'argent euh, di delloo njukkal bu baax les sénégalais de l'extérieur de la diaspora yi nga xamante ce matin c'est à nous bokk nañu bokk na ci li leen di wétali suba bu jot kon bokk ñoom it ñu ngi di jaajëfal rawati ki Euh, ak euh, journal bu ne ak la nga xamante ne xëy na fësal ko waaye dañuy dem ak yow ci Ousmane Sonko président bu PASTEF euh, ci wàllum faire Falémé bi nga xamante ne yëkkati na ko xam le ne dañ ko bëgg dénk ñi nga xamante ne ñoom ñooy Turquie waaye ci saa si rek yi nga xamante ne mooy Mountaga si di njiitu APIX moom indi na ci ay tontu xam le ne li mu wax yëpp dara du ci dëgg ndax liñ ko jaaralee dañ ko teg ci yoon. waaw ñu ngi assisté à dix mille milliards. parce que boo xoolee mbirum contrat pétrolier ak gazier bi nga xamante ne waa BBC ñoom ñoo ciy defoon ay révélation dañ ko tuddee woon scandale à milliards parce que dañoo ne euh, mhm. euh, ñooy Turquie lii ñu bëgg buñ ko amee. Mhm. dañ ci gagné dix mille milliards mhm. ni dem bi mu nañu bari parce que Sénégal euh, fii nii yàgg nañ ko waxtaanee du rek pétrole lañ am du rek gaz lañ am am nañ yeneen ressources yoo xamante ni euh, askan wi ñu bëri ñu ngi naan gisuñu seen bopp boo demee Sabodola on se demande fii nii est-ce or mi ngi fiy jugee ndax mhm. askan mi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee daanaka ñoom ñoo gënoon dool ci Sénégal amul fenn fu fen si ñoom tey jii ñu ngi wax les mines de la mais mu am benn fer boo xamante dañ ko ci war a exploité Sonko duñ ne lu ñu wax mooy dëgg ki nga xam ne moom mooy DG Moutagassi duñ Euh, yeelu yàqu yeelu hmm. xel day tey donc fii nii c'est une parfaite occasion pour suñuy autorités yi ñu woon Sénégalais yi nii suñuy ressources ñoom fooye wuñ ko parce que accusation yi dafa nekk accusation yu grave yoo hmm. xamante ñu nga xamante ñoom ñooy Sénégalais yi gis seen bopp ci exploitation bi affaire warul rek yam ci li nga xamante moom mooy ay démenti hmm. Ousmane Sonko wax kii gën a il faut ñu gis ay mbir yu leer yoo xamante day tax Sénégalais yi ressources humaines lañ ñu waxoon mm-hmm. moom moo nekkoon suñu euh, suñu fort fii nii ci Sénégal tey jii yàlla bu ñu wërsëkalee ñu dem ba am lu ñuy woowee ay ressources naturelles mm-hmm. ñaar yooyu boo ko boolee je pense que c'est une bonne jonction une belle jonction pour tekki mën ñëw yomb fii nii ci Sénégal donc vraiment ñi nga xam ñoom ñooy Ousmane Sonko li ñuy wax nañ ci apporter seen i preuve ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi nañu jàppale ndax sonn nañ trop trop trop trop trop mbir mii nii ñu mën cee gis suñu bopp débat débat télévisé xam xam nga Sénégal dafa am benn don boo xamante ne comme avocat ku wax nga ne moom moo am dëgg hmm. mais nañ jëf ñu gis ñun jëf lañuy xaar nit ñi dofuñu mais xam nga gars yi de gis nga mbirum ressources yi nii ñu ko maîtriser bari wuñu hmm. nit ki day toog wax ci wax yoo xamante ne da nga naan ub oh, kii lu wax avec la wax yëpp dara amu ci mm-hmm. ñoom convention yi ñu ci jël intérêt sénégalais yi aussi bu waxee finalement où se trouve la vérité mm-hmm. donc gars yi dañu ay actes yoo xamante ne day permettre ñu xam carrément dëgg gi fii la féetee que lii ni buñ ko exploité sénégalais ñoom ñu ci gis seen bopp parce que sonn nañ ci quand ay ressources yoo xam ne dañ naan ay dañ koy dilapider wala ci diggante ñaari nit ñetti nit lay yem mm-hmm. très bien donc d'après milliards euh, avec 400 emplois donc directs avec 800 emplois indirects 20 pour cent de la société d'exploitation euh, seront attribués au privé euh, sénégalais donc le Sénégal n'a pas donné une licence d'exploitation exclusive à cette société selon le DG de l'APIX mu di Mountaga Sy dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy chef de cabinet wu monsieur le maire Khalifa Babacar Sall ci sorti ah Madiop Madiop Diop mooy maire bu Grand Yoff. ah mooy maire bu waaw wax nga dëgg waaw ma Diop sama xarit wax nga dëgg ma Diop ma Diop contribué naa ci de ma ma Diop moom tamit ma Diop ah waaw baax na. waa baax na Khalifa nekkatul maire léegi. <laughs> mais dafay jàpp ne euh, macha allah macha allah donc Moustapha Dieng muy avocat wu euh, ki nga xamante ne mooy euh, maire bu ville bu waaye moom démb indi na ay leeral xam na ne Aliou Sall n'a pas été inculpé inculpé parce qu'une amul benn personne bu indi ay leeral ci. li nga xamante ne ñoo ko teg ci ndoddam yow en tant que citoyen ngay sénégalais euh, di def ci di yëngu ci wàllu politique ban jàngal nga ci waaw xam nga man euh, la première question que je me pose mooy que Sénégal est-ce que xamante nañ valeur milliard parce que depuis un certain temps scandale bu ñu fi tudd rek c'est des milliards uh-huh. on a parlé de 94 de Mamour du Prodac 6 000 dem Ousmane Sonko nous parle encore de 10 souvent zone yi euh, Lansana a fait bien de rappeler. d'accord zone yi ñu cité yëpp en général xam ne dañ fay exploiter ressources. soo fa demee les populations manquent de tout. très bien c'est des populations qui mais tey on nous parle de milliards. pour en revenir euh, à l'affaire Aliou Sall dama jàpp ni amul lu bees. parce que ba procureur génnee ñu baal ma def forme théâtre ci tele bi wax ni dafay woote appel à témoin la xel yi commencé woon na jaaxle. parce que su ñu defee parallélisme benn comparaison am na ay dossiers yu fi jàlloon. Mm. ñu ni diw ko tudd nañ ko ci benn dossier procureur ñëw chargé ñooñu. mais bi ñu gisee dossier Aliou dafa taxaw mel ni ku koy ragal gannaaw mel ni ku koy défendre. Hmm. daal ni ku ci am information indil ñu ko alors que ñun dañ doon xaar moom procureur de la république. mu def ay investigation hmm. dem xooli fan la dëgg gi ne. Hmm. mais daf ni ku ci am information indil. donc su toogee démb ni ñu way euh, contrairement à ce que certains disent peut dafa dafa setal Aliou Sall même bu dee xaw na ko rafetal sax x la wax. mais ce x peut être Aliou mais même bu dee dañu bëggoon avec des accusations yi nit ñi teg sur la table. Hmm. que mu dem plus loin mais li ñu gis aujourd'hui c'est la c'est c'est la justice des vainqueurs. d'accord c'est parce qu'il est frère du président et ce dernier nous a dit jour de la table que suma rak donc tey bu fekkee procureur lu mel noonu la génne du ñu bett mais dafay wanewaat rek aujourd'hui suñu justice. Hmm. ci benn tànk bi muy doxee. Hmm. te mu nekk lu dangereux bu ñu demee ba ci réew. justice b nga xam ne mooy nekk dernier recours. population bi kenn amatul yaakaar ci justice ba koo wax mu ne ah justice ba de lu neex nguur gi lay def. je pense que war nañu arrêter à un moment donné. ñu xoolaat suñu justice. Mm-hmm. parce que bu bu fekkee la justice dafay rendre le droit au no du peuple et que ce même peuple amul confiance ci moom je pense que y a. dafay indi jiixi très bien on y reviendra tout à l'heure inchallah pour parler des 900 jours yi nga xamante ne Khalifa Babacar Sall moo ngi koy foofu euh, ca prison euh, bu Rebeuss ñu dem ci euh, docteur docteur rapidement rek Sénégal am na beneen jéego bu mu muy décroché na benn nouvel hôpital boo xamante ne war nañ ko def foofu ca l'ancienne capitale du Sénégal mu di Saint-Louis pour un montant de 55 milliards muy diggante Sénégal ak Japon yow mi di yëngu ci wàllum santé loolu nekk na mbégte boo xamante ne buñ ko amee ñoo mooy nañu defar suñu plateau euh, médica médicaux yi pour au moins nit ñi bañ a di génn réew mi di dem di faju biti bi waaw mu nekk loo xam ne dañ koy rafetlu parce que ñun fépp foo xamante ne wér-gu-yaram askan bi ñu ngi koy jël en rek dañ koy dañ koy rafetlu hôpital boobu fi fi ñu koy implanté. Hmm. dafa nekk zone boo xamante ne ñooñu soxla nañ ko parce que dafa nekk à cheval entre région yu bëree bëri. mu nekk loo xamante ne war ko mun a defaat def ko Tamba def ko Kaolack Kaolack am na hôpital mais ñu relever niveau. plateau technique plateau technique yi. Hmm. parce que Dakar rek nekkul nekkul Sénégal. parce que da ngay gis ñoo xam dañuy def ay 500 kilomètres 600 kilomètres. Hmm. pour ñëw Dakar pour def benn pour def. benn analyse loo xam ne dañ koy rafetlu. di ñaan yàlla aussi bu loo xamante ne luy jël temps la mu nekk loolu lu ñuy def ci délai bu gàtt parce que population yi aussi soxla nañ ko très bien waaw dinañ ci dellu si waat léegi nii ak yow insha allah bu ko defee ñu leeral lépp li nga xamante ne jëm na ci liggéeyu euh, pharmacien euh, moom nag yegsi na muy gise maabo kenn dootu ko présenté ndax euh, saa yu ñëwee rek yokk cere yi ñeex ci biir ce matin seetaanu moom nag tey dina waxtaanee wàllum permis mais ci biir permis boobu dinañ wax tuuti ci tata 59 ak 73 mii nga xamante ne def nañu jéeya démb encore une fois foofu ca yëmbal ba faat benn ndaw boo xamante ne mu ngi toll ci juróom benn at Ah, mu nekk ay yëf yoo xamante ne kenn comprendre tul li ko indi mooy dañu leen njëkkante maanaam course ci diggante ci diggu digitali bi bëccëg ndar kam ana lan moo ko fi jaar merci beaucoup Nicolas et bonjour aux téléspectateurs de la 2STV euh, comme ni nga ko waxee rek tey dañuy xuus euh, ci li nga xamante ne ni moo jëm ci mbirum permis de conduire yi parce que gis nañ ne Sénégalais yi ils attendent toujours au dernier moment pour mm. réagir et état bi lancé woon na ko depuis le 3 septembre 2018 ba léegi ñu dugg ci 3 septembre 2019 un an j'espère que nekk waroon na nekk waruñu woon toll ci situation bi jamono ji ku ci nekk waroon nga jot sa permis bees lu jëm ci bus yi nag waxaat indiscipline mooy yëkkatiku euh, parce que du question que nit ñi mënuñu dawal am na si ñoo xamante ni yor nañ seen permis mën nañ dawal mais indiscipline la parce que dañuy taxaw ci tali bi di njëkkantu naan kii du raw ba pare di jaay reewante xol yi aussi xat na xam naa loolu tamit dinañ ci gën a mhm. xuusaat parce que euh, instant bi ñu nekk ni accident yi bëri na torop ñi ñaa ngi dee comme pas possible d'accord loolu mu ngi xewee nag foofu ca route de Boune euh, ñuy euh, masaw bu baax waajur yi mbokk yi xarit yi nga xamante ne jege woon nañu lool lool ndaw boobu noonu nga xamante ne jot nañ ko faat démb foofu yëmbal Euh, te di woote waat rek prudence et puis éventuellement na gars yi gën génn taxaw ci tali bi ngir surveiller bu baax euh, doxalin bi nga xamante ne euh, ñoo ngi koy doxalee dañuy jeexalee ak yow Moussa Sène très rapidement ak téléthon bi nga xamante ne am nañu yéene def ko ngir oustaz Tayib Socé ndax li ñuy koy wax xaar ci xaalis bëri na loolu mu ngi toll ci 100 millions de nos francs CFA donc lu ci mel ni oustaz Aliou Sall oustaz Iran Ndaw ba ci ki nga xamante ne moom mooy Mame Matar Gueye bu Jamra ñoom Euh, ñu ngi taxaw taxawaayu sentinelle maanaam ay pexe solution ngir euh, Taïb Socé mën a euh, amaat liberté waaw mënuñu lu dul rafetlu loolu parce que ndok moom du wees te kenn ku ci nekk sa dundu dundu doomu aadama laata moo sotti lu nekk donc xaj na ci c'est tout à fait normal que ni situation bi ni nga xamante ni noonu la dellu siwaatee ci Taïb metti na parce que mi ngi fa woon moment dellu si waat par rapport ak yaramam xawoon na jagati tuuti mu demaat ba nga xamante ne xëy na mbir moomu toppaat na ko mënuñu lu dul di ko massawu ci loolu parce que kenn yéenewul kenn mu nekk ci foo xamante ni tey sa liberté dañ la koy privé kon mënuñu lu dul lancer aussi un appel koo xamante ni mën na ci jàpp rek ci loolee nga xamante ni moom moo di caution bi mu war a déposé na ko ci def te suñu borom taxawu ko bu baax ba mu mën a génn foofu nga xamante ni moo di prison moom Tayib Socé parce que am nañu koy xaar te am nañu bëri ñoo xamante ni am na muy def ci ñoom mm-hmm. man mi bokk naa ci ñi koy déglu di ko masawu lu baax te di encourager initiative boobu ku ci mën a jàpp rek na ci jàpp ku ci mën a jàpp nañ ci jàpp euh, donc ñoo ngi sargal bu baax euh, commentaires yi nga xamante ne def nañ ko euh, de façon naturelle ah spontanée pour que ku ne rek joxe wax ñu li mu xalaat ci actualité yi nga xamante ne moom moo lëmbee réew mi jamono ji ah, donc dañuy continuer di ko wéyal ba tey ndax ñoo ngi ñuy déglu ci 88 point 4 rajo bi nga xamante ne moo wodd réew mi ñu xool météo température du jour ana naka la ñuy yeewoo ak naka la ñu war a yendoo mais aussi ñu jox leen euh, le taux de change mu di euh, bourse bi nga xamante ne moom la ñuy euh, wecceeku ñiy jóge bitim réew wala ñi nga xamante ne ñoo ngi fii war cee liggéey ànd naka la tëddee météo taux de change c'est maintenant avec la complicité de Mané très donc ñu ngi ci météo bi mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yaa ngeen nuy bàyyi xel ak foo leen mënti nekk ci réew mi waaye fii ci dakaar muy capitale du Sénégal ñu ngi yeewoo ci 25 degré euh, fas yéene yendoo ci 28 28 degré foofu ca Kaolack nangaan di sargal bu baax waa Touba xo euh, ñoom ñu ngi yeewoo ci 23 degré war yendoo ci 30 degré euh, foofu ca Linguère ah ñuy sargal bu baax waa Ndiayène Xaalis Serigne Khadim Ndiaye ñu ngi koy sargal bu baax ñoom yeewoo nañu nag ci 24 degré war a yendoo ci 30 degré Podor ñoom ñoo ngi yeewoo ci 25 degré war a yendoo ci 32 euh, degré euh, foofu ca fi nga xamante ne euh, moom mooy bien sûr ca Matam ñoom ñoo ngi yeewoo a 24 degré ci suba si war a yendoo 29 degré ci ngoon bi ca Saint-Louis l'ancienne capitale du Sénégal ñoom ñoo ngi yeewoo ak 25 degré ci suba si 30 degré ci ngoon bi foofu ca Tambacounda 23 degré ci suba si degré euh, ci euh, ngoon bi Kédougou euh, mu ngi yeewoo ci 22 degré ci suba si dafa mel ni Kédougou tey ci suba si moom feex na de. waaw 22 degré ci Kédougou. nooy na ah kon mooy taw na de. waaw nañ jàpp ne taw na de ah. ah? waaw def na taw de. tuuti rek def na ah def na tuuti taw tuuti taw ah, la def mhm. ah toq toq galaxtaan toq galaxtaan ñuy wax ah. bu baax may ma toq galaxtaan yow dégg naa ko mënoon ñaan nga ba nga nekk 29 degré lay yendoo ah, foofu ca Kédougou waaye gis nañu suñu mbokk waa Kolda ñoom ñi nga xamante ne yeewoon nañ ci 23 degré ci suba si waaye dinañu yendoo ak 30 degré ci suba si ca Ziguinchor suñu mbokk joolaay ñu sargal leen bu baax diggante Afiñam Bignona ak fi nga xamante moom mooy euh, Santhiaba ba ci euh, Thionke Sil euh, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sargal bu baax ci ànd bi nga xamante ne bés bu jot ñu ànd ko ñun 23 degré ci suba si la ñu yendoo la ñu yeewoo waaye ñu ngi war a yendoo ak 30 degré ci suba si ca Matam ñoom yeewoo nañu 24 degré ci suba si fas yéene yendoo à 29 degré ci ngoon bi donc loolu mu nekkoon seen météo du jour defe naa ne fësal naa les différentes région du Sénégal ndax région boo ci dem am na noppalukaay macha allah Fatou Bakar la donc dañuy fexe rek ah, di génn léeg-léeg di dem di noppalu ci bërëb yu mel nii dafay am solo ah ci suñuy ay région moo gën ñuy def comme Kumba Gisee wala Valérie léeg lée ba ci Ajara ah ndax ñoom léeg-léeg ñu jël plane bi jël avion bi xam nga fu muy vacances ah bon fu muy vacances Mauritanie Mauritanie macha allah <laughs> waaw mais xam nga dama koo mer déedéet waay ah déedéet suñu yaay dafa anniversaire fii ba tudd ko tàccu fecc wëndeelu mais gâteau ñëwul. dañuy defaat ngénte anniversaire. ay waay waay man maa bañ. ah ngéntaat anniversaire da nga koo gis yow. waaw dina doy waar ah dina doy waar kay ah waay ci digg bi. waaw bu ñu fi wax ay dina kii danaa neel day day doy waar. waaw mais peut-être anniversaire anniversaire baa gudd rek anniversaire baa gudd ba xam ngénte anniversaire amul. ngénte anniversaire. laajal laasana. kon de daa balay ànd. mais lu ma lu wul moom bañ ci indi ay jafe-jafe daa balay ànd loolu moo dal sama xel donc bu ñu jugee ci li nga xamante ne moom mooy euh, météo dañuy dem ci euh, taux de change taux de change bi nag euh, ci suba si ku ci mel ni ñoom Racky Traoré nekk foofu ca Kër Massar ñoom ba ñu ñëwee ba tey ñoo ngi wecceeku li nga xamante ne moom mooy euro

banque ko musuma dañ fay dañ suñu fa daj très bien donc loolu mu nekkoon euro bu ñu fa jógee ñu leen ci américains yi euh, sénégalais yi nga xamante ne ñoo ngi fa ñu ngi leen di nuyu bu baax ah di leen wax boo leen ñu déggul nuyu nañu leen ah ñu nuyuwaat leen. dégg nañu dégg nañu ah dégg nañu. très bien ah dollar américain mu ngi toll ci 591 euh, point 436 francs CFA donc muy xaalis bu am solo boo xamante ne xam nga seexi seexi seen. Ah, ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy anniversaire waa ji jaabante na jour boobu jaabante yu métti métti métti métti borom Thiès dañ dëkk ñaari gaar borom marché mu sant ah. borom daa daa ñeme teraanga nag daa ñeme teraanga nag. dafa ñeme teraanga wala dafa ñeme encaissé. dafa ñeme teraanga moo tax ñeme encaissé ku ñemewul encaissé doo teraanga. li ma ñeme teraanga li ma jaabante li ma dem lépp ñàkk tooy sonn. Mm. moom joxe wu ci dara. <laughs> ah man de man de li joxe joxe naa moom xam nga nit ku ne. dafay joxe li nga mën. Ah. man sama baat baat la ma yàlla may gum. da ngay wax rek yàlla joxaguma baat ak xaalis. dafa ah. dama amagul am am nga baat. Mm. léegi nag liggéeyal ci baat bi. Mm. mais laasoon fi ngeen di daje ne. musuñoo daj. daje nañ musuñu daj. daje nañ alaasa dafa may jéem a nii xam nga jël yu bëri yi mu am moom moo tax. waaye gis nga ah, ah fii en face. fii en face. foofu la ñuy daje foofu la daje. foofu mm-hmm. la très bien dirham Emirates moom de xaalis bee ñu nii 161 point 047 moom de gars yaa tukki waaye daal ay ay ay saako daal defe naa ni daal boo ko ci amee daal jël waaye boo ci amul euh, saako xool bu ñu la ay 100 dirham. di fayul lu bëri. ah ndoxu ndoxu kër gi sax ay xoolal gis nga kii fayul sax ndoxu kër. xëy sax quoi kii cëñ lii waaw waaw waaye ñu ñu sargal leen rek encore ay ayca bu ñu jógee ci dirham émirate fu ñu jëm dañuy dem ci yuwaan la ilaha illallah xaalis bi nag dafa waroon nekk à l'envers hmm. yuwaan bi hmm. <laughs> bisaay walla yuwaan dafa waroon nekk 5570 point 82 rek xoolal. ñëpp fa lañuy ñëw mooy bàyyi PDG El Hadj mooy yow may tukki léegi nii mooy bala di bàyyi fii. dem ci Hong Kong yi. mooy yow waaw dem naa ne xëy na 82 point 5570 francs CFA foofu la euh, xaalis bi euh, toll yéen ñi nga xamante ne yaa ngi ñuy déglu euh, ci diggante Tata King Long dem dikk Sën Long Ndiaga Ndiaye taxi clando particulier yéen ñëpp xam ngeen ne Yuan bu Chine mu ngi toll ci 82 point 5570 francs CFA dafa jeex wala jeexul. bu jeexulee euh, ñu dolli ma li nga xamante ne mooy euh, dollar canadien ñu mbokk yi nekk foofu ca Ottawa ñi nekk ca euh, Montréal wala ñu nekk ca Québec ah, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax yàgg nañoo bëri jom lool macha allah te it visa yi jafewul noonu waaye nag na day fekk ay visa wu ñàkk càqal la ah visa wu dem jaaj garanti ah, lu ci ëpp mm. waaw waaw waaw macha allah ñu may la visa donc 444 points 5062 francs CFA man bëgg naa nag ñu ñu may am ci visa yi de parce que am na ay festival yu war a am ay octobre novembre yooyu. Hmm. man bëgg naa ci dem de. Hmm, da ngay bëgg rek. Ah, waaw ñun ñëpp bëgg a dem. Ah, <laughs> ñun ñëpp bëgg a dem. ah ci festival yi. bah oui encore ah, yow da ngay def concert nga. Mhm. ah kon naa am ko ma àndal ñu def bino du dëgg. waaw oui eh, bañ nga bàyyi ma fa de. festival Toubacouta. festival bi Toubacouta. ah defe a dañuy promouvoir. festival ah, ah, ah, man waxuma festival boobu de. festival a waxuma ko de man mosuma ko wax. festival a waxuma ko de mu ay kaan nii gaynde gi nekk sa kanam man waxuma loolu de man dama ne la nga dem fële gannaaw yooyu eh, tubaab yi di gars di kontaan. ngay tëb di daal nga wàcc ñu ñu defal la yëf. ngel dinaa ngel. Hmm? waaw ngel dañuy woo kii. waa jooju doon fii kan mooy séeréer bu mag bi sax ci kër gi. Euh. non à moom non moom moom ñoom baabu baabu baabu foo séeréer déggal mu naan ñooñu garaawul ñoo ngay recevoir Baléry di ma recevoir di recevoir a hmm. naa ne Valérie séeréer la saafeen dëkk Thiès def na 10 ans euh, saint moom nag dafa polyvalente de fu ne moom fu ne lay dem euh, Babou euh, gis nga xam nga ko moom dafa bëri affaire moom Babou Ndour daal yàlla na yàlla fal cat donc mbokk yi euh, ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne ngi koy ànd ak yéen suba bu jot dans ce matin c'est à nous muy rendez bu am solo boo xamante ne euh, dinañu jàllale de l'utile à l'agréable ngir euh, jox leen li nga xamante ne moom mooy les actualité a traité ko fii sur ce plateau bu ko defee nag bëccëg bi à partir de 10 heures 11 heures midi nga gis ñëpp a ca xoo ci nag ah fekk ñun def na classe yaa aay amiin waay la yàlla fal cat ñun ñëpp ah ñëpp ñu bokk te fekkee ko amiin alhamdulilah mais équipe bi moo ay macha allah équipe bi waaw équipe bi de euh, équipe bi de mooy def doole bi moo tax man may bari wax xam nga équipe bi am na nuñ may def du ma mën a wax waaye am na nuñ may def tamit may wax bu bëri donc maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci niñ may def di ma préparé ngir ma mën a nekk ah au top dafay am solo waaye cent jours sa xarit nekk ca kaso ba jàppale woo ko demoo fa ne yow tax takkoo sa bopp ci gir yi ne euh, <laughs> tant que leen ko man du ma dem lu tax defoo loolu yëpp waaw xañ na peut-être naa ko fi benn député bu ko defoon. waaw mais peut-être am naa chance sama malheur moom mu fekk si ma fa ma def moom un mois. 17 uh-huh. jours te biir Paso. ah def mu wér. waaw fekk na ma fa nag ñu. kon yow simi nañ la. waaw jafe ji a na a de nee na dafa yegg si a def. néew de. ah a dafa am ñaari chambre yu nekk à l'étage et kon yow étage lañ la yóbbu. man man ma woon ci kaw ay trois personnes. détenus politiques non c'est pas détenu politique ah. parce que on était autour de cinquante parfois dans la chambre. jàpp soixante paquetage paquetage. ñaata mètre carré. Euh, wala yéen paquetage bokkoo leen ci sama sama dañu bëri ñu bëri fa mu toll man maa wax de maa war a wax. mais xanaa ñëpp dugg di tëxi tëxi mais garaaw wuy ma. gars dañu bëgg xam say mboot ci biir. paquetage bi moo ma ñor parce que comme deux détenus yu gaañu euh, démb aussi. parce que c' mm. pas parce que euh, tu détenu. que yow da nga war condition yoo xamante ni c' pas normal. parce que c' est c' est pas joli parce que paquetage bi métti na ko gis mu génn kaso loolu lay njëkk a wax paquetage bi moo tax chaque fois damay bëgg ku génn kaso di expliquer situation yooyu dafay baax aussi nga xam ne autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy dégg xëy na peut-être xamuñu lan moo fa nekk ñu mën indi ay jéego yi nga xam ne dinañ mën a nekk dans de meilleures conditions il faut faire attention ci benn affaire mhm. sànq moom mi ngi koy wax ni il était détenu am na fa ñoo xamante ni ñi ngi feesal kaso yi ne sont pas te lu ñu war a leeral la. ce sont des prévenus. très bien chambre 47. d'accord léegi chambre 47 ana naka nga ko dundee. Ah, ah après nag ñu mun a dem ci euh, waxtaanu 900 euh, jours yi nga xamante ne euh, sa xarit nga fa ba tey. waaw nga may ma rek ma nuyu bépp détenu bu nekk tey prison wu Rebeuss. Hmm. parce que damay faral di wax ni boo nekkee ci biti ni xalaat bi ngay am ci ñoom ak boo dundee ci ñoom dafay dafay dafay dafay wute. Hmm. mu nekk ay nit ñoo xam ne en général dégg naa sax defe naa Guy Marius di ko wax keroog. Hmm. boo fa duggee kenn waxatul justice ku ci ne danga naan sama sor rek teg naa ko ci yàlla. pour wane rek aujourd'hui benn boo ñàkk boo xam nit ñi ñu ngi koy dund foofu mm-hmm. donc rëbës nag tey lépp lu ñu la fa wax rek je pense que des na parce que tey y a des yoo xam ne tey même bu dee dunduñu ci chambre yooyu mais di nga am occasion pendant les heures de pause gisante ak booy waxtaan ak ñoom gis yenn jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund parce que bu ñu demee dans des chambres ñu ni cent cinquante personnes voire deux cent personnes mm. parce que paquetage bi ñuy dund la wala pour ñu am accès sax ci toilettes yi dafay dafay dafay xaw a métti mm. moo tax souvent quand on parle de réforme de la justice dama ne il faudrait que les gens ñu dem au-delà de ça mm. revoir les conditions des détenus parce que ñu ngi ci 37 prisons du Sénégal mais rëbës la fa nekk doy na waar. Mm-hmm. beneen fait bi nga xam ne souvent dama koy dama koy dénoncer moo que tey boo fa demee da ngay gis ay nit. ñoo xam ni ña nga fa ñetti at ñeenti at jugé wuñ leen man ki ma gën a marqué période bi ñu nekk Rebeuss moo ñu doon moo ñu doon war le a fait cinq ans de prison xëy dem taxaw ñu ni ko defoo dara bàyyi ko noonu te aujourd'hui da ngay gis ay ndit ñoo xam ne tey cinq ans la ñuy dund ñii trois ans ñii quatre ans ñenn ñi sax dañuy dem ba naan est-ce que seen dossier réeru mm-hmm. donc il faudrait que ñu xalaat ñu jàpp ni ki nekk tey ci prison ba nit la peut-être dafa am euh, jafe-jafe ak yoon mm. mais il est humain il a des droits yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a di invité waat autorité yi mm-hmm. ñu gën a ci conditions yi parce que li xew démb ñu wax ko muy chambre 11 mm-hmm. pour ñu xamul chambre 11 couloir boobu en général détenu mineurs yi mm-hmm. dañu fay nekk mooy mineurs yi nga xam dañu dëgër bopp forbe ba ñu jëlee fa parce que dëgër indi leen foofu en fa la ne mu nekk couloir bu couloir bu xaw a xat donc chambre yooyu tey bu fa lu mel ni li ñu wax ni moo am étincelle chambre bu mu ci am rëbës tey mais yàlla bu ci jàppul mën nañoo romb lu mat ba li jaaxal ñu bëri mooy amul blessé amul dara bi parce que ñoom rap euh, ci communiqué bi nga xam ne DAP génne nag direction de l'administration dañuy ils ont été électrocutés mhm. loolu la wax te loolu lu mën a nekk la dans ces prisons ah. tey mais dañuy invité rek état bi ñu dem au delà de ça ñu ubbi une enquête mhm. pour leeral ko e que ñu bàyyi souvent li may xaw a bañ mooy mbir bu amee rek ñu ni plus jamais. Mhm. te il faut ñu dépasser plus jamais boobu nga mhm. xam ni condamnable mais que ñu def de telle sorte que. Mhm. ëllëg lu mel noonu dootul amati ci kaso yi Sénégal yi. très bien donc mu nekk lu am solo laasana léegi nii dañ ci ànd ak moom ngir gën koo waxtaanee waaye euh, monsieur Soya Diagne mu ngi fàttaliku euh, ñëw na fi. Euh, ba ne bu jaree ñu sukk ñaan. ñu may ñu grâce. Ah. après ñu gis ci ginnaaw ñuy wax ay on demande pas on yow da nga bokk ci ñuy demander wala ñu dul demander. waaw man euh, damay wax ni ñi nga xam ne dañuy wax euh, dañuy demande grâce c'est le droit le plus absolu mais ñun dañu bokk si ñi aligné wu ci position wu Khalifa Babacar Sall parce que pourquoi ñun dañu ne du ñu ñaan grâce xam nga bi ñu jàppee Khalifa ñun ñëpp dañu wax ni complot la. Mm-hmm. bi procédure bi commencé ñu dénoncer toute la procédure. Mm-hmm. bi yi génnee ñu rejeté ko. Mm-hmm. mais nga bañ lépp. lépp lu ca génne ah. tey nga wëlbatiku di que la grâce suppose que nga peine bi maintenant ngay ñaan njëkk ah. ñun xalifa est victime de complot bi xalifa mën naa bañ bi mën naa ñaan ah. waaw ñu jàpp bi mu toogee fii loolu la def dafa dafa toogee toogaayu njaboot ne ñun ñooy ñaan dama ko koy nangul hmm. mais man dama bokk ci ñi gëm ni tey xalifa Sall li mu soxla tey mooy qu'il soit rétabli dans ses droits xalifa hmm. Sall li mu soxla tey du ñaan njekk parce que kii ñaan mooy ki tooñ hmm. moom tooñul dañu ko tooñ te lépp loo xam ne laal na ci procès bi ñun dañu ko rejeté ah. donc tey fi ñu toll demandé wuñu grâce parce que tooñuñu au contraire ñun la ñu war parce que ñun la ñu tooñ. Mhm. alors nee nga dañ ko tooñ ba mu def tey jii nii mm. euh, ngeen fas yéene ko xaw ma màggal la ñu koy woowee wala commémorer ak lu ci mënti am euh, tey jii am na benn événement boo xam ne da ngeen koo amal fi nga xam ne moom mooy FFM di euh, Grand Yoff ngir marqué vraiment 900 jours yi nga xamante ne <laughs> gàmmu wala màggal nga xam ne xam naa moom dina ci andi ay ah. leeral ne ko ci prison bu Rebeuss lan moo bi nii ngeen ne ngeen ci amal amal ab manifestation lan moo lalu ci esprit euh, ngeen di amal. waaw may fàttali rek ni xalifa euh, particularité mooy ñun euh, détention dañ koy dund au jour. Mm-hmm. di chaque jour militant bu ne mën a la wax il faut ñaata fan la def moo tax ci ginnaaw bu ngay dégloo bi ñu def 100 jours yi célébré nañ ko 300 mm-hmm. jours yi. 500 mm-hmm. yi 1 an ba 900 jours. mais tey particularité manifestation bi mooy dañu bëgg génne xalifa Sall comme modèle. modèle d'abnégation modèle de courage parce que jafe na kilifa politique gu day ni moom ñu denc la kaso lu mat cent jours déggoo ñu ni dem na pavillon spécial déggoo ñu ni feebar na déggoo ñu ni onk na loolu lépp tey mu dund ko ñun ñu à travers 900 jours yi ñun ñi ànd ak moom ñu bëgg ko réaffirmer suñu fidélité waaye bëgg ko wan ni moom ndegam moo am courage hmm. parce que li metti tey moom moo koy dund moom moo am gëm-gëm ni je préfère purger les cinq ans de ma peine que di ñaan njëkk ñu wan ko ni ko ndegam moo ko mën ñun ñi ànd ak moom tey la ñu gën a déterminé wu xaar ko tey la ñu gën a déterminé wu ànd ak moom moo waral tey képp koo xam ne tey njabootu xalifa Sall nga bokk ñu ne leen woo leen Grand Yoff pour ñu réaffirmer suñu fidélité waaye tey xalifa dafa war a wax ak askanu Sénégal parce que su ngeen fàttalikoo depuis bi muy wax day jàppale Idriss Seck ba léegi waxul à ay déclaration mu génn jaale ay mhm. tey nag bés la boo xam ni dina am une bu jóge ci xalifa war a jëm ci askanu Sénégal tey ni hmm? muy demee déclaration waaw tey jii incha allah daana am na une déclaration boo xam moom xalifa Sall dina ko jébbal askanu Sénégal mhm. te ay plénipotentiaire am daañu ko liir tey mhm. mu nekk exclusivité boo xam ne yéen doo wax fii mais tuuti rek loo xamante ne peut-être euh, mooy euh, mooy doon dominer euh, déclaration boobu lan lañ ci mën a li ma xam ci nit ki Khalifa Sall en général du un homme de détail saa yu waxee rek wax dafa jot parce que olof dafa ni wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy mu ni dañ maa wax fañ ma war ta waxe mu jooyaat ñu ko looy jooy mu ni dañ maa waxewul nañ ma war a wax moom nag dafa xaw a nuroo góor gi newoon ci roq bi saa yu waxee rek Sénégal dina ci gis boppam te tey am naa yaakaar ni li xew ci réew mi ak fi ñu jëm dina bokk ci point saillant yoo xam dina génn ci discours le reste nag da nga may may rek ñu ñu garde ko en tout cas Sénégal lépp loo xam ne day jëmale askanu Sénégal xalifa dina ci wax mais ku koy xaar ci ay détails boo nga bay ñu ndax xel du ci wax alors man donc li may doon euh, bëgg a dellu si rek moom moo di xalifa qu'il purge les cinq ans ou bien qu'il soit gracié hmm. yéen yéen a ko topp am na ñoo xamante ni ñi ngi ci ginnaawam mais vu que ni tey yaa ngi naan war nañ ko rétablir ay droit am parce que loolu mooy seen combat hmm. lan mooy avenir xalifa Sall ci politique parce que vu que tey ni mu demee nii ak li nga xamante ni lépp génn na ci procédure judiciaire bi fi ñu toll nii xalifa boo xoolee tey capacité c'est très réduite. moo tax ma bëggoon a xam tey lan moom mooy avenir politique am. waaw peut-être loolu sax damay damay jàpp ne sa xalaat la parce que wax ni xalifa Sall capacité am c'est réduit aujourd'hui mais je pense que xaw na soree réalité bi. non sañ-sañ yi nga xamante ni rek. foofu laay am na nu mu ko fa tegee. ok pour ñëw ci sañ-sañ yooyu. xam nga tey ñaar moo am. y a le tribunal de Macky a condamné xalifa Sall ah. mais le tribunal de l'opinion c'est le même tribunal qui a condamné aussi d'autres personnes le de Macky a condamné Khalifa mais xam nga tey droit dañuy wax ni la justice est rendue au nom du peuple mm-hmm. mais ce peuple sénégalais à travers le Front citoyen may nuyu les initiatives ñu koy animé mm-hmm. plus de 500 000 sénégalais jóg nañu taxaw signé ni d'accorduñu ci jugement bi génn fële mais le peuple bu fekkee droit bi nga xam ne moo ko yore bu fekkee moom la ñuy rendre justice ëllëg Khalifa Ababacar Sall son procès bokk na ci loo xam ne dañ ko war a revoiraat Khalifa daf nga war a rétablir dans ses te man li ma gëm la Sénégal gi ñu toll mm. le Sénégal politique bi ñu toll bu tay ak ëllëg sa un Sénégal qui ne se xalifa pas mm. bi ñu koy jàpp nag ñu ko jàppoon au delà de takkal ko dañu ne woon bu ñu ko jàppee tey dañuy dañuy casser dynamique am mm. mais tay la Khalifa gën a nekk ci xolu Sénégalais tey amul fooy dem ci Sénégal te doo dégg Khalifa Sall bañ na ba ki ko tëj damay wax ni dafa am une peur bleue a Khalifa. bu ah saa waxee xalifa rek day wax tojaag ñu ne ma pourquoi day que ngi parce que nit ki yaa ngi politique ñëwal ci avenir nga tey avenir peut-être avenir nit avenir yàlla moo ko. non a tax mais ci politique nga yow politique ngay Moussa ci Sénégal ah, ah. bi ñu toll ci réew mi kenn du ko def sans xalifa Ababacar Sall.

Karim Wade ñu naan euh, tribunal mosu ko prononcé bi ñu demee ci élection gis ngeen lu ci xew participé wul jotul yéen it ngeen ni carrément bu ñu demee ci élection Khalifa Sall kenn amnistie wu ko du mën a am dara déglu li ki dëkk Grand Yoff di ma wax déglu ki nekk Kédougou li may wax waaye déglu ki nekk fële nga xam ne mooy Pekes wala mu nekk ngol-ngol la may wax ak lim ñuy wax expression bu wax ni nul n'est de la loi absolument il faut que loolu ñu bàyyi mais aussi y a un expert qui me dit que face à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir mmh. te li ma gëm tey jii mmh. man li ma gëm laa te mooy li Sénégalais yi di wax mmh. mooy que Khalifa Ababacar Sall son procès du début à la fin c'est politique mais lu politique def nag politique mën na ko dindi. moom aviam la wax. ku ma gisee euh, bëgg dama rek ci lu Lassana Cissé wax léegi. parce que euh, c' est vrai que accompagner xalifa Sall am na solo mais est ñu koy accompagner côté juridique xam nañ lan la Khalifa Sall bëgg ak lan la ñu war a xaar ci moom côté politique. parce que ñi ñaa ngi naan am na ci ñoo xamante ni bëgg nañ ñu gracier ko am na ñoo xamante ni si moo leen moo leen amal solo mais yéen est au fond xam ngeen ne gracier bi Macky ko ko defaralee Khalifa Sall que benn droit dootu ko amati même chef de quartier bu gën a ndaw sax amatul droit nekk ko ci koñam est-ce que tey ji tamit jote jotul côté juridique ngeen teg ci ay euh, ay matuwaay yu war ba xalifa Khalifa Sall génn reprendre activité politique la waaw xam nga tey Euh, ku mu neex tey nga am xalaat parce que aussi ku sañoon tey góor gi day génn ñëw ci sunu wet ñu kon ne liggéey bi mais am na koo xam ne dafa jàpp ni Khalifa Sall dañ ko war a gracier mu génn parce que li mu gis mooy mu génn tey mm. mais dafa am koo xam tey mooy principal responsable bi mooy Khalifa Sall te mm-hmm. quand on parle de ces conseils juridiques euh, c'est pas pour les jeter des fleurs mais xam naa ni ñi ëpp xam-xam ci wàllu droit tey ci réew mi ci mm-hmm. en tout cas ci baro bi ñi ngi ci wetam mais moom li mu jàpp mooy tey mm-hmm. demandewul grâce ñaanul grâce saraxuwul grâce parce que dañ ko tooñ ku ñu tooñ nag li ñuy sàkku mooy ñu corriger ko rétablir ko dans ses te aujourd'hui le caractère politique de l'affaire Khalifa Ababacar Sall ñun ñoo ko doon wax ñu ne ñu da ngeen a far mais tey jii l'histoire nous a donné raison parce que la plus haute autorité de ce pays daf ñu conforté ci li doon gëm mooy que Khalifa Sall yoon tëju ko Khalifa Sall tooñul réew mi benn benn délit rek la commettre. Mhm. mooy am ambition pour dëkk bi. benn délit la commettre mooy wax Macky Sall ak Benno ànduma ak yéen. Mhm. mais loolu moo ko yóbbu kaso te tey jii histoire jox nañu raison parce que ñoom ñi ko doon bañ dem tey ñoom ñoo ñu confirmé ci loolu. en tout cas il continue de faire le buzz parce que boo xoolee ci g bi euh, li nga xamante ne jot nañ ko ci yëkkati du ñàkk xam naa ne loolu moom nga bëggoon laaj ko. Euh, pour ñu jox la ci xalaat. waaw loolu dañ ko ci bi nga xamante ne Khalifa Sall amoon na ko jamono jii nii est-ce que loolu noonu mi ngi fi ba léegi duñ ci waxaat parce que mbirum mbirum avenir peut-être ci loolu la la laaloon mais euh, Khalifa Sall gis nañ bi nga xamante dafa def euh, benn consigne de vote à l'endroit de de Idrissa Seck ci élection présidentielle yi nga xam ne du baromètre parce que nga ca toll mhm. lañ ca war a dénoncer en termes d'illégalité mhm. dénoncé nañ ko jàpp nañ élection la yoo xam ne jaarul considérer ni baromètre la parce que Khalifa en tant que Khalifa ne s'est pas présenté comme candidat toute élection boo xam ne en général moom Khalifa Sall présenté na yàlla defal na ko ci ndam donc bu Khalifa xam nga ko jugé moom mu taxaw candidat la Khalifa Ababacar Sall bis bu taxawee ni candidat la ba Sénégalais yi weddi ko ce jour là mën ngeen jël mën ngeen ñëwagul de hmm? Khalifa candidat ñëwagul de incha allah léegi mu ñëw ah, léegi mu ñëw incha allah d'accord alors euh, li mu bëggoon a xam moom mooy. vous êtes d'avis avec mois que ni nous sommes tous égaux devant la loi. absolument n'est-ce pas. absolument ñi nekk jeel prison wu Rebeuss. Mhm. ñi nga fa dundandool ñëpp. Mhm. xam nga sànq bi ma débuté maa ngi naan la prévenu am na détenu am. Mhm. xam nga ñi ngeen fa nekkandool ñëpp ñi ñu àttewul te témoin nga ki nga xamante ni def na cinq ans ñu àtte ko ni ko defoo dara. pourquoi tey jii nii les hommes politiques ñuy agité wu à que. bu ñu amee problème ñu leen di àtte très vite alors que am na ñu nga xamante ni nekk nañu fa nekk ci prison bi kenn waxul ci seen i dossier xam nga xam nga tey yaa ngi posé problème bu am solo te xam nga pourquoi may insisté ci problème Khalifa parce que jurisprudence la tu sais que Khalifa Ababacar Sall en moins de d'un an dossier nañ ko waaw convoqué nañ ko dikk mettre nañ ko mandat de dépôt jugé nañ ko premier instant deux dem ba cour suprême et pourtant am na koo xam ne mi ngi ci kaso ba def na cinq ans. waaw te bi ñu koy bi ñu koy jugé moom c' est parce que amoon na une commande qui a été faite par l' exécutif et cette commande c' était de tout faire boucler l' affaire Khalifa Babacar Sall avant avant avant ñuy dem présidentielle. mais xam nga ku mel ni tey da nga ma wax léegi nga ne ma nous sommes tous égaux devant la loi. donc traitement bi benn la war a doon. xam nga Barthélemy Diaz. Uh-huh. wax na lu mel ni nii. Uh-huh. tey dossiers yi dañ leen di traité selon ordre bi nga xamante ni moom la ñëwee. Uh-huh. kon est-ce que loolu day réconforter que ni contexte bi ñu nekkoon muy politique maanaam euh, avant élection moom moo waraloon taf tafe gi ngeen di wax. mais absolument parce que Khalifa tey bu ñu jëlee exemple bi ñuy déposé dossier lu ci mel ni Cour suprême mais fekk na fa des centaines et des centaines de dossiers.

ci mel. boobu lañ ci seppi te ñun xam nga tey damay réaffirmer waat cette demande de Khalifa. notre plus grand souhait aujourd'hui c'est que ce rapport de l'IG soit déclassifié pour que la vérité ñëpp xam ko. parce que bis bu rapport IG bi génnoon sur la place publique ngir ñu xam la ca ne. am naa yaakaar ni yuuxu dina jug fuñ ko foog. mais li ci amoon solo rek mooy Khalifa Sall. la ñu c'était un potentiel candidat qu'il fallait éliminer de la course. mais est tasul est ñëpp yaakaaroon ni xay na bu fekkee jël na réew mi processus bi moom mooy que ni xalifa moom sera non seulement libéré mais mhm. amnistié pour yaa ngi dégg li ñu so li avenir politique bi leer man fa ma doon waxee foofu la foofu la bi ngay wax waxi consigne bi tamit loolu lañ doon xalaat parce que ci wàllu politique Idrissa Seck n'est pas n'importe qui champ politique bi ñu ko seq ñëpp bu xalifa joxee consigne de vote ba ni diw nañ ko jàppale foofu noonu bi mu demee ba nga xamante ni tey Macky Sall rempilé na. Mhm. est-ce que tey foofu yaakaar tasul ba tey ñuy wax ni ngeen dellu siwaat sur réalité bi nga xamante ni am na. waaw xam nga ñun nous n'avons jamais quitté cette réalité et l'élection présidentielle c'était un moment. am na position bu ñu waroon jël te je pense que jël nañu la position mais la xew ca élection yëpp xam nañu ko bugguma ñëwaat ci débat boobu parce que dañu considérer ni élection ba bu jaaroon yoon su jaaroon respecté woon les règles hmm. am nañu yaakaar ne aujourd'hui Macky Sall ancien président de la République la ñuy wax ndax Khalifa libéré waaw léegi consigne boobu dafa am lu mu fësal mooy ay voix discordantes ci ñi nga xamante ñoom ñooy jàppale Khalifa Sall gis nañu bi mu joxee consigne bi am na ñoo xam ne dañ cee ànd ñu ci ni ñoom Barthélémy Diaz am na ñoo xamante dañu jël seen responsabilité ne ñoom du ñu voté Idrissa Seck Sonko la ñu dem voté voix discordantes yooyu noonu tey jii nii est-ce que bokkul ci li nga xamante ne moom mooy def seen faiblesse waaw xam nga xam nga aussi politique damay faral di wax ni du daayira du armée mm-hmm. bokkatoo ci bokkatoo ci. parti socialiste bay ne bay ne. Hmm. bi ñoom ñu yor. pourtant yéen naan kenn dàqu leen. attention hmm. parti bële le parti socialiste yóbbaale ma. ma ci maa ngi ci parti socialiste de Senghor parti social qui est toujours du côté des populations. Hmm. donc dama jàpp ni élection la ñu tolloon. Khalifa Sall joxe na consigne nit diw la ñu voté je me suis conformé à cette consigne parce que répondre na ak samay orientation politique am naa yaakaar moom du ma duggal foo xam ni fu bon lay doon mhm. am na ñeneen ñoo xam ne peut-être à l'époque dañ jàpp ni du ñu loolu peut-être ñoom la engagé woon mais nous ñun li ñu engagé woon. Mm. mooy conseil bi mu joxe woon engagé nañu. Mm. parce que ñun ñoo ko def leader ci politique ànd ceeg moom. Mm. très bien léegi euh, ñu jeexalee ci ci euh, déclaration bi président Sall def ci G7 bi li nga xamante ne wax na ko nga xamante ne moo lëmbee àddina fu mu toll nii ñëpp di ko waxtaanee euh, yow lan mooy ci sa analyse. waaw ñaari analyse laa ci def benn bi wax naa ko sànq mooy que yi dafa feeñal lu ñu yàgg a wax ñun moom mu bañ ko. tey daf ñu conforte ni Khalifa Sall benn désir moo ko yóbbu fële beneen bi nga xam ne jàng war nañ ko jàng at mu met mu jaaxal ñu ñun ñëpp mooy que defe naa ni réew mu day ni Sénégal dañ ko war a gouverner ci ay textes ak ay lois mais suñu demee ba di ko gouverner ci désir te ñëpp xam nañ ni fu désir ñëw euh, raison jóge na fa désir moom fu mu teew raison jóge na fa donc on doit s'interroger sur les personnes qui dirigent notre pays sur scandale yi nga xam ne mais xam nga désir moom fu am. raison jóge na ah donc nag ñun sénégalais war nañoo tiit parce que bu dee suñu réew ci désir lañ koy yore ak envie yu ah. je pense que y de quoi s'inquiéter. jërëjëf ñu ngi yi nan lañ ko na fas yéene aborder gars yi ne na ñàkk ngeen uh, mairie bi waaw gars yi élection bu ñu jëm ñu ñàkk nañ mais saa yu ñu saa yu élection ngoon jot ak saan jotee mm-hmm. defe naa ni xam na ngeen def la différence maintenant ñun nag dañu am particularité lu ñu xalifa dëkk bi la affaire gox bi la mm-hmm. te saa bu ñu jotolloo askanu Grand Yoff doomu Grand Yoff yëpp daañu ànd autour de l'essentiel xool li gën ci dëkk bi ñu def ko très bien donc ñu ngi ciy sargal bu baax Madiop Diop moom mi nga xamante ne moom mooy maire bu euh, Grand Yoff ci liggéey boo am solo bi nga xamante ne mu ngi ci góorgóorlu di ci def euh, kéemtalaay kàttanam ba ci inondation yi gis nañu taxawaay bu mu ciy taxaw di ci ànd ak population yi ah, du ñàkk ah. yaa ngi koy woo de ah yaa ngi koy woo de maa ngi koy mais soo soo soo ñaan rek seen plateau bi di ko ñaan peut-être waa Ageroute bu dee ñu ngi suivre. Mm-hmm. tey ku ne xam na ne nawet bi bu ñëwee. Mm-hmm. station Patte d'Oie jàpp pharmacie ba sonn nañ ndox ma day bari. comme ñun defar nañ suñu ay grille avaloir par le biais du maire Madiop depuis un an certification la ñuy xaar mm-hmm. nañ ñu dimbali ñu poser grille avaloir yooyu soulager population bi ci ndox mi. parce que nag loolu ñu téye tey mi ngi sonal askanu grand bi dégg nañ la jërëjëf ñu ngi lay euh, sargal bu baax muy euh, Bassirou Samb moom mi nga xamante ne mooy chef protocole bu Khalifa Babacar chef de cabinet bu euh, Khalifa Babacar Sall wala bu Majo bu Majo bu Majo man de pour man de. moom mooy coordonnateur de. seen waa ji dama ko dafa collé ci Khalifa ba nga xamante ne. mooy Khalifa rek waaw xam nga ñoom mooy Khalifa man kay loolu laa jàpp. ah man de loolu laa gëm wax dëgg yàlla mais <laughs> nag comme sama waa ji moom dafa dafa ne ma man bëgguma ngay ngay ngay ngay kii ngay ji da koy waaw donc alhamdulilah ah guddal fan lool waaye. ah coof ah coof xale yi. bàyyi di wax loolu lañ nopp bàyyi di wax loolu. très bien waaye euh, waaye <laughs> euh, instant J Fatima Silla moom euh, mu ngi ci beneen wàll bi ndax xam nga moom. Euh, namaguma euh, di ko invité fii euh, ci plateau bi ba tax na tey defe naa ne dama koy bàyyi noonu sax mu dem doxantu ji Fatima Sylla moomu xale bu xees boobu noonu dama koy bàyyi mu dem doxantu ji ba tax na ci loolu damay dem ànd ki nga xamante ne moom mooy Daara Abdoulahi gay moom mi nga xamante ne moom mooy borom l'islam bi borom diine macha allah di ci def jéego yu am solo waaye tamit ñu gërëm suñu papa Dramé. Mm, Alamine Alamine Dramé. macha allah moom la muy def ci waxuma la ci kër gi waaye ci àddina ah dafa dafa am solo lool lool lool waaw bëgg naa nag eh, weer bu jot mu may ñu benn bés moo xamante ne dina ñëw ci plateau bi ñu am lu ñu barkeeloo ci xam-xamam boobu noonu ndax émission Al Amine bi nga xamante ne eh, c'est tous les mercredis soir ñu koy suivre eh, dañ koy dañ ciy gis suñu bopp bu baax a baax donc ñu ngi sargal waa 2STV ci programmation bi et puis di rafetlu xam-xam bu màcc boobu nga xamante ne suñu papa Dramé Al Amine am na ko kon ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal gudd fan ak wér ñu dem xool Daara Abdoulaye Gueye ci yóbbu lu bés bi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziare di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm te nangul ñu suñu jàmm yàlla yóbbul tey bi nag mbokk yi dafa gàtt lool waaye dafa ëmb lu bare bare bare bare te rëy déglu leen kàddu yi dafa ni ko kun xaamidan lima ladayk faqad samia allahu liman xamidahu dafa wax nit ki ni ko nanga sant yàlla bu baax a baax a baax ci li mu la wërsëgal jox la ko jullit day ñeme di sant boroomam borom bi subxanahu wa taala na bokk na ci liy yombal dolli sant la in shakartum la azidannakum mu ni kon yàlla bu la joxee santal te xam ni sant googu nga koy sant moom yàlla dina ko dégg day yëg ni sant nga ko kon jullit dafa war tàmm di sant. sidna Bilaal macha allah ñu xam ko suñu maam ju baax jooju as-saxaabiyul jaliil doonoon muaddinu rasul daan noddal yonent bi alayhi salaatu wasalaam Bilaal ibnu Rabaax moom da daan sant yàlla fu mu toll daan wax ne alhamdulilahi ala nicmatil islaami wa kafa maa ngi sant yàlla ci xéewal gi ma xéewalal boole ma ci ñi bokk ci lislaam bi nee na doy na kon nit day sant yàlla mu ne santal yàlla bu baax a baax a baax a baax ci lépp lu la dikkal mu teg ci nag ni faqad samia allahu liman xam tamit loolu ngeen koy lu ngeen duñ ci dégg xam nga kuy julli da ngay gis bu rukkoo bay si gi danaan sami allahu liman hamida lan moo waral loolu dañu wax ne ci histoire julli bi muy soog di wàcc ci yonente bi julli di buntaan julli rakk yëpp dañ daan wax allahu akbar soo rukkoo allahu akbar boo siggee ci rukkoo allahu akbar Abubakar ni Siddiq di julli si bis tardé mais bi mu ñëwee mu ngi fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci rukkoo te foofu la rakk di façon mu ñëw kàbbar fekk ko waaye ba mu kom di rakk bi raw ko mu sant yàlla ci loolu di alhamdulillah suñu borom xamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kàddug Aboubacar bi bu mu siggee yonent bi ni sami allahu liman hamidahu yàlla day dégg na ki ko doon sant muy Aboubacar ñu teg ca rabbana wa ka hamd kon dal yàlla yow dong yaa yelloo sant kon da nga ciy dégg ni jullit buy sant yàlla yàlla dina ko dégg moo tax lu la yàlla defal santal del sant ba sa borom xam ne yaa ngi sant nee na boo santee rek sami allahu xam hamdu yàlla dina dégg képp ku koy sant te boo xamee ni sant nga ko loolu dafa mën a jural nit njëriñ lu baree bari fii ci àdduna njëriñ la àllaaxira ndax fii ci àdduna moom dolliku doo taqali tàqaliko moom waaye di koo xam ne doo sant mukk toujours yàlla dina defal xéewal fu fekk yaa ngi fu la fekk yaa ngi jooytu fu la fekk yaa ngi wane ni yaa ngi ci fitna loolu baaxul kon nañuy sant yàlla bu ñu santee mu dégg ñu te bu ñu déggee dolli ñu fii te bu yomal xiyaam yi mu dugal ñu àjjana yàlla nañ ko yàlla defal ñu ñëpp defal ñu bëccëgu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax ci taxawaay bu am solo bi mu di Daara Abdoulahi Gaye ñoo ngi koy jaajëfal ci yóbbalu bés bi comme tous les jours ni mu koy defee dans ce matin c'est à nous ci noonu nag dañuy enchaîner avec. Euh, sama waa ji Moussa Sène euh, ngir mu ñëw ci wàllum euh, chronique santé comme ni ñu koy tàmm di defee euh, jeudi bu jot tey nag mu ñëw indil ñu docteur docteur nag war waxtaan ak ñun léegi nii ci wàllum pharmaceutique lépp li nga xamante ne rek maanaam ump nañu dina ci waxtaan léegi nii incha allah donc docteur moom mooy docteur mbay seen muy président collectif des pharmaciens privés de Pikine Moussa li ñu ci war waxtaan muy la profession pharmaceutique pourquoi nga def choix boobu ci jamono ji ñu nekk ci début propos yi nga xamante ni moom nga wax parce que vu que ni euh, yàggul dara rek ñu ngi dégg ci lu jëm ci loo xamante ni donc pharmacie la laal mu jëm ci wàllu pharmacie bi nga xamante ni moo di pharmacie Mouhamed Falidou Mbacké bu Padois sànq rek suñu waa ji xam naa mi ngi tudd wàllu Padois mm. mais li ñu bëggoon njëkk laata ñu wax ak docteur mbay seen moo di euh, dañuy faral di wax naan prison boo fa duggee benn comprimé rek lañ lay jox ñu paracétamol dëgg la wala du dëgg. <laughs> bari na fa loolu dem <laughs> day jox paracétamol daal. préféral gant paracétamol. paracétamol daal nee nañ. nañ ko saa jox moom lay lay jox ngay naan ah. nañ ko def si tamit dimbaliwul daal nga am ah, dimbal. waaw paracétamol lay jox naan nga ci. d'accord alors un professionnel du médicament nekk fii nii docteur Mbaye ñi ngi dellu nuyu la. Ah, maa ngi lay bëggoon euh, waxtaan ak yow ci euh, profession pharmaceutique bi ngay président collectif euh, des pharmaciens privés bu Pikine. Mm-hmm. li ñu bëggoon wax tey jii nii en tant que président nekk tamit pharmacien. Euh, wàllu garab di médicament ki am sañ-sañu laal ko ba xam dafa am fu mu war a jaar wala bu dee fi mu war a jaar fan la parce que ñu ngi naan la yow docteur en pharmacie waaw Moussa euh, euh, pharmacien dafa nekk koo xamante ne cursus bi nekkut lu yomb mm-hmm. parce que il faut nga am bac série scientifique d'abord mm-hmm. bac s wala bac s nga nga âgé de moins de de vingt deux ans bi ngay am bi ngay am bac soo amee bac ba pare mu am beneen sélection boo xam ne dañ koy def au niveau de la faculté de médecine mooy faculté bi day wax exprimer nombre de place yi nga xam ne moom la am pour recevoir les étudiants étudiants yi nga xamante ne désiré nañ def pharmacie yëpp ñu classé leen par ordre de mérite donc noonu la ñuy jëlee loolu la ñuy jëlee pharmacien au niveau de la la faculté de médecine. mu nekk un cumul de points boo xam dañ koy def ci ñetti matière matière mooy mathématique science physique et SVT. donc ak nag léegi pour départager étudiants yi notes yi nga xam ne moom ngay am seconde première terminale. donc mu nekk sélection bu rigoureuse pour ñu mun la jël en en première année. soo defee soo ñëwee université nga def cinq ans d'études boo xamante ne c'est les études théoriques et pratiques. cinquante ans d'études yi ñu sanctionné ko par une par une thèse boo xam ne thèse de doctorat d'état la boo xam ne moom ngay def à la à la à la sixième année donc pour résumer mun nañ wax ne un pharmacien pour être pharmacien il faut nga am bac bac série scientifique def au moins six ans six ans d'études. d'accord alors tey jii kon n'est pas qui veut pharmacien. loolu loolu lu wér la. alors monopole médicament. kon pharmacien bi rek moom moo am sañ-sañu wax ni garab moom moo koy manipuler. loolu loi moo ko wax. loi moo ñu jox monopole du du médicament. d'accord mooy pharmacien rek moo am droit manipuler manipuler médicament. alors léegi pharmacien bi kon rôle lan la war a doon. waaw oh, rôle pharmacien bi pharmacien bi d'abord c'est un acteur de de santé publique. Okay. moom il est au début et la fin de la prise en charge du patient. Mm-hmm. donc rôle am nekkut ni ko nit ñi gisee mooy yëkkati garab joxe parce que yëkkati garab joxe. c'est de la dispensation te loolu yëkkati garab joxe responsabilité bi nekk ci gest bi moo ëpp sax li nga xam moom ngay mooy acte bi ngay bi ngay posé. lan la pharmacien bi mën a encourir foofu ban responsabilité. waaw mun am na ñett responsabilité yoo xamante ne pharmacien bi da koy encourir mooy su le plan civil sur le plan pénal et sur le plan disciplinaire mooy. pharmacien bi su fekkente ne def na act boo xamante ne tey lor na nit ci joxe bi mun nañ ko ci topp ci yoon. mun na ci fay ay domage et intérêts. Uh-huh. et corporation bi ci boppam mun nañ ko teg ay ay sanctions. ok alors kon dinañu permettre ñu glisser wu ci actualité. d'après ce qui s'est passé. Yeah. mais avant loolu ordonnance bi nga xamante ni tey moom ngay recevoir. Mm -hmm. sur prescription de du docteur la. Mm mais médecin. Mm-hmm. ba tey ute na ak docteur pharmacien bi. pharmacien bi ban sañ-sañ la am ci ordonnance bi nga xamante ni moom lañ koy présenter à l'officine. waaw. sañ-sañ bi mu ci am mooy lépp loi moo ko régir encore parce que texte Sénégal moo wax ban ordonnance moo valable ak ban ordonnance moo valable. laaralal ñu loolu. mooy dafa am ay catégories de médicaments médicament liste 1 médicament liste 2 ak ay médicaments de tableau de tableau 5. Mm-hmm. léegi autorité bi ne médicament de liste un kii moo am droit prescrire ko mu ne soit c'est un médecin soit c'est un chirurgien dentiste soit c'est un sage-femme c'est mm. xamante ne moom moo am droit. prescrire médicament boobu noonu mais dafa am ay dérogation yoo xam ne loi bi da koo def mooy Sénégal toll nañ foo xamante ne nekkul zone boo dem rek fekk fa un un médecin mhm. donc ñu am ay dérogation yu ñu def pour dëkk yi nga xamante ne amuñ médecin ñu permettre infirmier bi mu mun a mu mun a prescrire yenn yenn médicaments yi mu am liste boo xam ne dañ ko koy autorisé pour mu bind ko donc su fekkante ne ki bind ordonnance bi nekk na ci catégorie boobu rek pharmacien war na mun a engagé responsabilité xool ndax médicament euh, ordonnance bi conforme na ak ak li nga xamante ne mooy mooy mooy kii bi. Mm-hmm. alors ce qui s'est ce qui s'est passé avec l'actualité ban appréciation yéen ngeen ci am en tant que collectif de pharmaciens. waaw appréciation bi ñu ci am mooy bon di masawu d'abord suñu collègue docteur naa Gaye ci li ko ci li ko dal. Mm-hmm. di ko euh, afficher toute notre solidarité. di gërëm instance yi aussi ci seen seen taxawaay parce que taxaw nañ ci problème bi taxawaayu. taxawaayu njiit taxawaayu kilifa mais au delà de problème docteur Cheikhouna Gaye dafa am leneen loo xamante ne da ko da ko da ko koo wone mm-hmm. mooy li nga doon wax léegi nit ñi xamuñ ki nekk ci derrière le comptoir mooy kan uh-huh. parce que suñ ko xamoon rek dina am traitement boo xamante ne mm-hmm. moom lañ koy moom lañ koy moom lañ koy moom lañ koy accordé parce que ki nekk derrière le comptoir mooy le pharmacien il est là pour la population mm-hmm. te tey dafa jox nag population bi xam ñun suñu njëriñ ci ci société bi parce que ki nga xamante ne dafa jóge këram ñëw pharmacie façon nit bu nekk la façon nit bu nekk ngay gis ki nga xam ne kii jàng na kii mititam la indi kii donc ñu ngi koy gérer bokk nit ñi ni leen di gérer nit ñi bokkul moo tax problème bi am bi am Grand Yoff c'est un incident regrettable waaw bi am Patte d'Oie c'est un incident regrettable boo xamante ne mënoon nañ bañ a àgg foofu mm-hmm. mais liñ ci wax yëpp mooy bëgguñ delluwaat ci ci yenn ci yenn détails yi di indiwaat benn polémique parce que wax wax kii problème bi waxtaan nañ. ci est-ce que amuloon beneen taxawaay boo xamante ne pharmacien bi waroon na ko mën taxawee. non di tëb di kii yow nga taxaw di ko xool rek. woon ko ne man professionnel la ci li ma jàng du ay caaxaan ba yegg si ci niveau bi maa ngi fiy liggéey ay at musuma cee am problème donc tey doo ñëw bekk benn nit boo xamante ne garab bi ñu may wax. Euh, buñ ko dindi woon sama salaire mu yóbbuwuma fenn mmh. pour mu jaral ma nga may nga nga may xirtal ba man may mën a génn derrière mon comptoir pour jëflante ak yow waaw loolu euh, manque de manque de maîtrise boobu noonu ñu ko doon gën a kii maîtrise boobu nit ko waroon a am ñu ngi ko doon gën a xaar ci kim jàkkaarloo mooy kan mooy commissaire bi waaw ah, mais client la waaw non non non waaw non en fait parce que parce que moom dañ koo formé oui je ko ba nga xamante ne pour moom. moom moo ñu war a aar moom moom moo waroon fa aar pharmacien moom loolu mooy. Ah. mooy aar suma bien. mais est-ce que yaa ngi man xam xam naa baax li nga wax. dama ne maîtrise boobu noonu ci commissaire bi lañ ko woon gën a xaar ke ci pharmacien bi. parce que moom forme cursus am ak man sama cursus nekkul benn moom dañ koo formé pour mu aar ma aar sama sama sama am-am. donc kon moo wax yore la formé man dañ ma formé. Mhm. pour may aar nit ki. man tamit ci wér-gu-yaramam. Hmm? Mhm. dalal ko su ñëwee. Mhm. waxtaan ak moom ba xelam dal. ah ma jox ko lim lim soxla su méngóog. man li nga loi li ma li ma permettre. Ah, waaw alors euh, man fi ma bëggoon ñëw yow mooy euh, déjà li nga xam ne moom moo xew est-ce que c'est pas parce que sénégalais dañoo dem ba def ko règle générale ku soxla garab tey jii nii da dem ci euh, pharmacie donte ni am na ñoo xamante ne on a disconvient parce que sénégalais bu soxla garab rek da dem wax waa garab bi laa soxla ñu jaay ko ba ñun tamit ñu mujj ko def règle ku soxla garab rek dem est-ce que nekkul loolu moo waral mbir loolu parce que. mais am na quand même ku soxla garab rek ñëw pharmacie. Mhm. pharmacie mooy jaay garab dire. waaw parce que dafa am am na garab yoo xamante ne mën nañ la ko jaay sans ordonnance. est que nekkul moo dem nag ba dugg kii wu mentalité sénégalais ñu mhm. foog ne garab bu ñu soxla pharmacie rek war nañ ko mën a dem amee ji sans ordonnance. moo tax nag ñu wala waxtaan ak ñoom loolu mooy suñu loolu mooy objectif. Mhm. rencontre bii tey pour waxtaan ak population yi pour ñu li ma ko waxee sànq pour ñu xam kan mooy kan mooy pharmacien bi lan moo lan la ñuy liggéey ci biir ci biir pharmacie ak ñi nekk ci biir pharmacie bi ñëpp ku nekk lan mooy lan mooy sa liggéey parce que ki ñëw indi ordonnance ki ñëw indiwul ordonnance soxla garab boo xamante ne soxlawul ordonnance tamit su ñëwee ne ma jaay ma garab bii nii sama responsabilité mooy mun naa ko interroger laaj ko looy doyee garab bi pour lan ak lan ak lan ak la su fekkee koo xamante ne ku war a jël garab boobu la mun naa ko yëkkati jox ko ko sans sans am na médicament yoo xamante ne aussi médecin bi des fois da lay bindal ordonnance renouvelable pour benn yoon wala ñaar yoon wala ñetti yoon comprendre léegi ordonnance yooyu aussi suñ suñ koy indee dañ leen koy dañ leen koy dañ leen koy joxaat durée seen durée traitement mm-hmm. seen durée traitement man damay jàpp ne euh, pharmacien euh, vendeur en pharmacie. Euh, accueil yi nekk ci euh, ci yi vendeur bi nga wax léegi nii dañu am dañu war a am beneen xeetu taxawaay c'est-à-dire mën nga nekk sax général takk say galon. Mhm. mais boo duggee foofu nekkatoo général. citoyen nga patient nga. Mhm. da nga am loo yittewoo donc pour man mooy li ñuy wax rek ci accueil bi. accueil bi xool xaw ma faral dëgg bi féete na nag kii moo tooñ wala kii moo tooñ moom man kii ma. vidéo yi gis naa ko wane nañu ay version ki version parce que pharmacie bi bokk na ci sama sama dund. am na lu mu ci lu mu ci joué parce que dëkk naa Patte d'Oie Buldeuse d' la maison elle est toujours là-bas c donc pharmacie bi ak boutique bi ñoo taxaloo te boutique boobu noonu 24 heures la c'est-à-dire n' importe quelle heure boo yittee woon boutique ci Patte d'Oie Buldeuse da nga doon mën a. jot ci boutique boobu noonu d' te boutique la boo euh, boutique la boo xam ne ak pharmacie boo xamante ni ñu ngi nekk ci kër Serigne Moustapha Massamba Mbacké Serigne Modou Bousso Dieng moo ubbi buntu kër googu noonu. te sëriñ Modou Bousso Dieng ba ba muy génn àddina cest à ay garabam yi mu yi mu mujj doon utiliser ci pharmacie boobu la ko doon jëlee hmm. parce que këram ak pharmacie bi sorewul da doon yabal ndaw rek wala mu woote hmm. Euh, ne ñu ko préparé nangam ak nangam ak nangam bu ko defee nongo bi ñëw jël garab bi ak fay xaalis bi dem yoonam. donc aujourd'hui man man man fi ma may waxee mooy maanaam am na leneen lu lu waroon mën a dolleeku. ci pharmacien bi wala vendeur euh, garab bi ci taxawaay bi ah parce que léeg-léeg nit dina ñëw. am nu muy ëtt nu mu lay ëttalee nga taxaw di ko xool xam nga après moom ci boppam raison am ñëw après mu kii parce que loolu ci biir liggéey bi la te li mu wax léegi nii ci cursus bi nga xamante ne moom ngay def métti na trop xam kese la donc du euh, ay ci ay caaxaan waru koo mën a daal pour man. c'est vrai raison pour laquelle tey nga gis bi problème bi amee j'aime bien ton sens fi mu waxee ni lii am na lii am na kenn ku ci nekk wax na cherché wu ma fi dëgg am. mais nañu xool tey jii nii nan la ñu waroon a mën a defaree ba mu rafet de sorte que tey client bi quel que soit li nga doon wala ni nga mel boo ñëwee ak anam boo mënti àndal pharmacien bi moom it am mat gi nga xamante ni mën na la dee dalal la pour loolu am. mais da nga tudd tudd benn terme bu am solo bu ñu naan boutique pharmacie. Mhm. apparemment laas mi ngi naan ku xëy ku xëy rek boo amee loo war a jënd man ngaa dem jëndi ko fa sans problème. Mm-hmm. en plus que am na yoo xamante ne booy jënd boo jënd boo ñëw ci pharmacie bi jënd noonu parce que bari yoo xam ne bu ko gars yi di jënd dañuy dër ah. comme lan comme lan. préservatif boo koy jënd. non man man man man de man de bu nekkee jënd naa préservatif musuma xalaat dugg ci pharmacie naan ko euh, damay ñëw ne bonsoir ñu ne bonsoir ma ne am ngeen préservatif du lu ñuy consommer. du dëgg. mais nag <laughs> man yàlla nattuwuma la mu la nattu. mais nag yàlla def na ni. man j'assume. waaw ah. ah, man yàlla la ma natt yàlla def na ni ah. nee naa ne am na ñu koy def. mais ñu yàlla nattu ñu dugg ci pharmacie pour def <laughs> revenons à la situation euh, alors donc duñ ko sama tey seetaan <laughs> laasana mu ngi fi bu fi laasana nekkul sax ma sama tey seetaan nu ko mais laasana ko laas bu ñu bu ñu paree mu laaj ko kees gi fan la dugg keesu non gi rek la wax kees kes bu weex boobu noonu ah kees gi di def ay mille <laughs> waaw mais eh waaw mais yow ñun du ñu ay de xanaa dund nañ nag ci àdduna nag am na lu ñu jot a dund nag am na lu ñu jot a traversé. Mm-hmm. nit xar nag day weesu mbote. d'accord waaye nag ci lu munti doon. Mm-hmm. ah man ñi may ñi may seetaan xam ma lool xam nañ ma bu baax xam nañ ne man moom c'est du cash. da nga direct man moom amul ay Pata Ndiaye. mooy oh, waaw man moom. Euh, d'accord alors donc docteur bu ñu dellu si waatee loolu lépp ci ay produits pharmaceutiques la. Mm-hmm. yoo xamante ni donc dañ koy jaay te euh, dans le bon sens waxuñu pour humour mais. am na lu mu mën a préserver parce que mën na prévenir tey lu ci bare bare bari ah dans le sens là la ñuy waxee mais terme boutique moom moo ñu intéressé le pharmacie le pharmacien titulaire dafa war a di nekk ci fi nga xamante ni moom moo di pharmacien ci yoon mm-hmm. donc tey li ñu bëggoon a xam moom mooy pour quoi tey jii nii nit ñi mën a jàpp ni rek ku jóg dem pharmacie war nga fa war a mën a dem jëndee ci garab donte loolu lu aajowoo la lu normal la mm-hmm. mais apparemment dañu dem ba jàppe leen pharmacie yi ay baana baana c'est que da nga tudd moo boutique mais la seule différence mooy boutiquier bi moom su jaayee ba heure bu ko neex su ko neexee mu tëj dem yoon dem marché su ko neexee mu tëj dem feneen. Uh-huh. pharmacien bi amul droit boobu. boutiquier bi su ko neexee mu tëj tëdd nelaw su ko neexee mu bàyyi fa keneen ku ko neex pharmacien bi amul droit boobu pharmacien à chaque fois dafa am obligation yu am un pharmacien à l'intérieur de la pharmacie. n'importe quelle heure à n'importe quelle heure. mais kooku war nga leen sensibiliser pharmacie tëj bëri na trop. 23h30 waaw parce que dafa am parce que loolu tamit. réglementation bi dafa am ay pharmacie de garde pharmacie de garde bi heure ne cité bi lëpp. wala na la pharmacie nekk garde nuit yii ñi ñoo nekk garde garde jour. Hmm. daal benn pharmacie daal laa xam. mais da ngay may ma yeggali ci waaw ci ci ci rôle bi à l'intérieur de la pharmacie parce que responsabilité bi nga xamante ne pharmacien bu mu koy jël ci biir pharmacie bi su fa nekku hmm. dafay bàyyi koo xamante ne moo koy assumer responsabilité boobu noonu un assistant un pharmacien assistant mu nekk obligation mu nekk loo xamante ne loi moo ko wax ne pharmacien bi suy génn dafa war bàyyi un pharmacien à l'intérieur de la pharmacie soit mu nekk étudiant boo xam ne soutenir na thèse ba pare wala au moins étudiant boo xam ne mu ngi en en cinquième année nga xam rek moo ko moo ko dese donc kon jàpp leen ne bu ngeen duggee ci pharmacie su ngeen fa fekkul le pharmacien titulaire il y a un pharmacien derrière le comptoir. Mm-hmm. parce que ñi ñuy jàpp ñuy taxaw foofu ñu ci bëri dañ leen jàpp sànq terme boobu la ñuy ah. ay vendeur la ñu yaa man kama fa fekk sax xamul ordonnance demee noonu waaw mais yoo xamante ne sont bien formés ay stagiaires la ñu doon en général mais stagiaire moom am na ci ci ci kii bu nekk non non bien sûr ci domaine bu nekk waaw mais am ci lu ay fu mu yem. limite ah, ay limite fu muy yem. donc stagiaire kenn du ko jox mu mu kenn du ko jox mu def yenn yenn actes yi nii. su koy def sax da koy def su la sous surveillance de d'un d'un pharmacien pour au moins tamit moom mu mun a li muy jàng mun ko mu mun ko jëriñ. Mhm. mais jàppal ne à chaque fois nga dugg ci pharmacie. Mhm. soit fa fekkul le pharmacien titulaire y a un assistant qui est là-bas. xamante ne c'est un mhm. pharmacien aussi. mais Nicolas mi ngi wax wàllu sensibilisation. yaa ngi wax seen digganteeg population li ñu ci jaaxal mooy le pharmacien il est tout le temps derrière le comptoir wala voilà. qu'est-ce qui lii en fait avec les populations parce que rôle bi ba tey nit ñi am na lenn loo xamante ni saa yu ñuy wax mi ngi génn ci ci ci plateau bi que ni am na lu ñu desee xam seen digganteeg population bi. ba xam garab rek la wala lan la. waaw diggante digganteeg population yi du garab kese mooy li ma la wax sànq. pharmacien bi il est au début à la fin de la prise en loolu moo waral ñun au niveau du collectif de Pikine ñu organiser wu yi nekk foofu yëpp organiser wu en en regroupement di def ay actes yoo xamante ne c'est envers la population di organiser des caravanes de sensibilisation chaque année dañ koy def sur certaines maladies yoo xamante ne c'est des maladies chroniques wala ay maladies yoo xam ne nit ñi mën nañ koo éviter mm-hmm. ñu ñu sensibiliser leen ci dañuy organiser à l'intérieur de nos officines de dépistage comme diabète comme yeneen comme dañuy organiser des séances pour cancer du col de l'utérus ak yooyu yëpp mm-hmm. dañ ko organiser à à à Pikine di wax na aussi dañuy organiser ay dons dana rek organiser nañ don au niveau du au niveau de la MAF de Liberté 6 d'accord donc ci weeru koor bi pour mm-hmm. jàppale pour jàppale détenu yi nekkuñ ci ci comptoir yi kese ñu ngi ci ñu ngi ci activités yi nga xam ne population bi ñu ngi ci invité mais ñu ngi jël si initiative aussi di di informer population bi di leen éduquer pour nga xamante ne yenn maladies yi dinañ ko wala mën a mën a éviter donc ah, parce que euh, xëy na comparaison n'est pas raison mais euh, dafa am benn boutiquier boo xamante ne nga boo ñëwee ci boutique am di jënd Euh, li nga bugg jënd ak moom li muy bokk dana day dellu ginnaaw ne la yow taxawal foofu di wax rek yow yow deel wax rek xoolal <laughs> moom dem na toog léegi après bu ñëpp demee nga ñëw ni ko mais lu tax mu ne non non mu ne may daan sama doole te dama bëgg li may am mu leew ma mhm. boo ñëwee bëgg ma indil ay wax damay dem toogee nee ndax sama place la bu ma fi indee ay coow man maa yàqal sama bopp mhm. donc je préfère boo bëggee kii ma tam toog ne ne la yow del wax rek xam naa ne doo ma dóor di doo tëb <laughs> pour dóor ba dëgg man xeet taxawaay yooyu tamit bëgg naa euh, ñu koy taxawee surtout ci kaaw ak commissaire bi vous êtes politique mais vous vous, vous êtes citoyen. Mm. Euh, dégg nga problème bi diggante Grand Yoff ak Patte d'Oie Buldeuse moom. Euh, tali boo boo rombee boo rombee station bi rek. da ngay euh, jéggi mais bàyyi nga jéggi j'espère léegi da ngay yéeg ci pont bi. <laughs> léegi parce que naan na ci paracétamol ah naan na ci paracétamol naan na ci paracétamol ñun ñu dëkk dans dans les parages xam nañu baax pharmacie Mouhamed mais li nga wax sànq li ci am solo pour man da nga poser problème boo xam ne dépassé même les pharmacies c'est le problème de pharmacien nous devons revoir suñu accueil hmm. parce que chaque fois que nit déplacé wu dem ci benn bërëb moo xam muy këy moo xam muy faju moo xam hmm. police ba ci taxi yi sax am na un besoin spécifique boo xam ni moo ko fa indi peut-être su amoon lu ko gënal du fa ñëw donc il faudrait juste que pour man war nañu gën xoolaat hmm. bay topp bàyyi émotion parce que Sénégal léegi li xew mooy un fait day am tout de suite réseaux sociaux yi euh, wax ko ñu caaw ci caaw amplifié ko on ne cherche même pas une solution à ah, ça dénoncé nañ ko pare nañ li ñu ci war a jàngat rek mooy nañu accueil xam nit ki bu ñëwee ak nu mu mën a mel besoin moo ko fa indi mais yow mi ñëw tam kan fay fekk mm. nga xam ni kooku kat yow la fa nekkal mm. dafay liggéey ngir yow nga jox ko respect je pense que kenn ku ne je pense que euh, jàmm dina jàmm dina loolu la ñuy wax loxo kajoor dafay weesu lool xam nga tey nii plateau bi nii xam nga comme man maay présentateur su ma doon ñàngal nii di fas sama kanam gi nii di la xool euh, du sotti il faut ma nekk fu may may flexi di flexi di def nii ah léeg-léeg damay am lu ma naqari sax de waaye <laughs> mun nga ko bañ a xam de parce que euh, liggéey bi moom moo koy laaj parce que liggéey bi moo lay tënk ci loolu noonu ba tax na dañ ci a euh, comme li mu wax rek dafa nekk benn ensemble c'est général léegi da ngay taxaw di jël taxi sax taximaan bi muy tux ah nga arrêté ko di ko wax moom mu ne la mil nga ne ko non man 2000 léegi bi nga wax 2000 moom bu doon na yooyu yëpp tamit na ah nga def ko nit rek ne des fois nga arrêté taxi mu wax la prix boo xam ne leer na leen jaarul yoon nga ne ko demal sa yoon mm-hmm. non non man man man du man du ma la wax loolu mais dama naa la wuy ma da liggéey wala da kii mm-hmm. parce que tamit am na loo xamante ne man mënu ma ne ne fii laa bëgg dem damay wax ay 5000 mm-hmm. te mu leer na leen ne fii ba yomal xiyaa man du la fay 5000 pour dem foofu noonu mm. je préfère marcher di ay caaf di naan ay ay ndox di romb ay café di naan ba yegg ci bërëb yi <laughs> <laughs> moom koy gënal ma fay la junni ñaan am oto rek comportement rek comportement nañu xoolaat suñuy comportement ci service bu mun munti doon parce que ñun ñëpp Sénégal moo ñu yitteel. naka la ñuy def ba mu dox naka la ñuy def ba ñu gis suñu bopp naka la ñuy def ba mu am jàmm ak salaam yooyu dafa bokk ci li nga xamante ne daf ñuy dimbali Moussa Seye. alors la dernière question. Euh, avant la dernière question euh, moom dafa mel ni am na lu mu bëgg contribuer parce que jigéen la te dañuy yàgg di dem pharmacie euh, di ko yittewoo xëy na mu wax ci accueil bi wala mu wax euh, ci jafe-jafe bi nga xamante ne jot nañ ko am foofu ci Padois bi de. man ci accueil bi laay laay laay waxee. Nicolas ci jigéen ñi moom wax na ci góor ñi. <laughs> moom nee na la jigéen surtout jigéen ñi nag ñu ci ëpp problème tey ji da ngay déplacé wu dem ci benn service nga fekk fa jigéen ñoom du ñu xool yow li li la fa indi mais yow ñoom dañ lay natt ci parce que jigéen nga man jigéen laa di di di la jaay réewande je m'excuse du ma parce que am na service yu bëri yoo xamante ne nii respecté wuñu seen liggéey hmm. da ngay dem euh, nga war a def bàyyi liggéey bi dem defi leneen waa si ça le problème ñoom xamuñ ko xamuñ ne ñun ñoo tax ñu toog fa comme ñun ni ñu taxee ñu ñëw fa mais ñun ñoo tax ñu toog fa donc dama yaakaar ne le reste bi doit être mutuel ku ci nekk xam li nga xam ne moom moo la fa teg parce que tey jii boo wanee nit ki réewane xamoo ki fay ñëw kan la comme li daal pharmacien bi ak commissaire bi xëy na peut-être ñoom bu ñu waxtaanoon seen biir dinañ mën a déggoo ah ba après ku ci nekk euh, jàll ci leneen mais ku ci nekk dafay jéema wan sa morom man maa la sut lii man maa la sut lii alors ku ci nekk boo hmm. demee ci entreprise am chef la fa donc même bonne bi nga xam ne da koy fekk muy fobeere sax hmm. fi mu toog di def liggéeyam hmm. chef la doit être mutuel ku ci nekk xam li nga xam ne war nga ko def. Hmm. comme ça ñu mën a déggoo réewane bi bëri na euh, concernant les accueils dans dans les différents services. je hmm. pense que pharmacie ils ont un très bon procès. Hmm. non seulement seen i locaux set na ñu ngi euh, sol set na. Ah. dinañ wax ak yow ci je pense en général pharmacie franchement ils ont un bon procès en tout cas ñun pharmacie ñuy di di di franchement l'accueil c'est impeccable non non non ñoom kay ñoo ci gën gisoo gisoo balaa njaay lañu may de balaa njaay lañu may dama bëgg répondre ci li mu wax léegi ci moom li mu wax ci li mu répondre man ci li ma wax do répondre kee wax xam la moo tax xam la ah, jërëjëf ak ba xane xam la mo bëgg répondre la ñaan nga de nga ne doo répondre ci man do yow daal li waaw la ay see Pikine waaw waaw ay ñu def ñu def xam la moo tax bëgg répondre ci li mu wax parce que nekk pharmacie nekkul n'importe qui moo ko mën a ibbi ah, dafa am fooy jaar pour ibbi pharmacie absolument autorisation ak ak ah. ak euh, docteur monsieur monsieur madame Bao. autorisation autorisation état moo lay may nga ibbi pharmacie. ku amul doctorat mënoo ibbi mënoo ibbi pharmacie. waaw boole maag soo paree nga déglu. ah déedéet fii man maay dégluwaat. oui ma yow nag bu nekkee da nga ñëw fii fii du pharmacie de. oui ma man du ma pharmacien de. oui ma non ils sont ils sont ils sont polis ils sont posés. man jàll ma donc. kon comme que yaa ngi wax moom muy xaar ba nga pare. voilà. très bien mais moom moo doon wax. léegi nag bu déggee ma wax dafa na xaar. non mais yow yow yow comme que yow yaa ko fi dara. non xam nga accueil du chaleureux la. accueil du chaleureux la il faut pas être contradictoire. yaa ne waa ji bu la fekkee ci fi ngay liggéeyee.

damay fekk ci li ak fekk ci li nga wax yaa ni nit ki bu la fekk ci sa bërëb yow a am retenu am moo la si gisoo confiance ma def ci moom waaw gis naa loolu mais moom moo la si fekk si je pense fii moom nii moo tax ma ne c'est lui le roi c'est lui le <laughs> ne euh, euh, pharmacie nekkul n'importe moo ko mën a donc il faut nga nekk pharmacien d'abord nga def demande au niveau de la direction de la pharmacie. Mm-hmm. ñu jox la autorisation nga ib. même soo ibee ba pare état am na ay inspecteurs yoo xamante ne da leen di yónni ci pharmacie yi. Mm-hmm. ñuy dem di saytu. tout à fait xool ndax pharmacie bi méngoo na ak li nga xamante ne moo nekk ci. moo nekk ci teg donc su fekkante ne méngoo ak moom am na ay sanctions yoo xamante ne dañ la koy. dañ la koy teg. pour wax sénégalais population bi ne leen. Mm-hmm. garab kenn du ko jënd ci ci mbedd. garab kenn du ko jënd ci mbay garab ci pharmacie lañ koy jëndee parce que ci pharmacie rek moo am condition yi nga xamante moo lay permettre médicament bi mën ko xam moom noonu la joxe médicament d'accord donc jigéen ñi comme maa ngi ci xaar bari ci yenn surtout pilule du lendemain abuse euh, niñ ci abusé ñenn ñi ak conseils yi nga xamante ni tey war ngeen leen ko jox par rapport à cela ak lu jëm ci wàllu li ngay wax wàllu dispensation bi yaa ngi koy wax na mais tey pharmacien bi mënta warta bind ordonnance mais wara a corriger ordonnance parce que mm-hmm. il vous arrive que ñu présenter leen ordonnance boo xamante ni amaana ñaari médicament yoo xamante ni nit ki bind prescripteur bi bind na ko mm-hmm. te nit ki bu ko jëlee mën na présenter ay danger ci ci moom est-ce que tey yooyu yëpp bokk na ci yi nga xamante ni yéen a ngi ciy jariñ loolu moo loolu moo waral relation entre le médecin traitant et le pharmacien wala am une collaboration boo boo xamante ne bu étroite boo xamante ne dañoo war di dañoo war di communiquer. parce que médecin bi su fekkee dafay juum ci ordonnance pharmacien waroo juum ci délivrance bi. waaw pharmacien warul juum ci ci délivrance bi donc moo tax ordonnance bi dafa war di am à chaque fois le numéro du médecin traitant su fekkente ne dafa juum nga woo ko ne ko ah fii ak fii kat gis naa fi léegi lii est-ce que lii nga bëggoon a def. Mhm. moom su boobaa dina wax ne ah bëgg ma woon def li léegi léegi lii nga corriger ko mm-hmm. su fekkente ne mënu mënoo jot médecin bi nag malade mun nga ko référé waat ne ko demaatal ci médecin bi kat nga ne ko léegi li pharmacien bi nee na ma léegi léegi léegi li àndut moom su mun na am mu juum ah. mais pharmacien bi moom amul droit juum mm. ah, am na lu xew de <laughs> Moussa Sène laa koy laaj du ma ko laaj ni ko d'habitude pharmacien yi da pharmacien yi dañuy bokk dañuy lan moo tax dañuy boobu. eh. <laughs> kon kii wax ma si moom man ana pharmacien yi. yow lay wax ah, eh, ban caméra moom la jël moom ak pharmacien yi ban. Eh, oui ma euh, ka filmé ma. mais na wax li mu ba xam. non non non fii laa bëgg mu filmé ma. est-ce que nii. xaaral dama bëgg xam ndax nii. mais mais wax na dëgg bu ma nangu. bu ma nangu mais c'est vrai pharmacien bi. non non micro yi dañ ko programmé. non sama doom mën naa toog. ñaar nga am benn wala ñaar. Euh, non benn laa amagum. benn nga hmm? amagum waaw ñaar. non je pense que ci benn bi laay dem. i. kon jeex na yaa ko wax nii. <laughs> waaw mais kon jeex na waaw léegi ma. Hmm? xoolal léegi tëj naa micro bi xoolal micro bi. tëj naa ko hmm. léegi xoolal micro bi wala micro bi tëj naa ko. Hmm. dégg nga léegi ma dañuy taal dëggantaay. non non su benn bi laay <laughs> très bien Aïcha ñu xool suñu vidéo du jour très rapidement <laughs> ah, bu ko defee ji dellu si waat ndax ku bëgg see am na lu am solo loo xamante ne indi na ko ah, comme ni mu koy tàmm di defee jeudi bi bërëb bi ñu jagleel waa ah maa ne moo aay jaay wallaay donc loolu euh, élément la reportage bu am solo la boo xamante ne Kumba Gise defal nañu ko waaye dinañ ko waxtaanee ñu commencé waxtaanee ci bu ko defee euh, élément euh, reportage bi dina ñëw ngay wax wàllu permis de conduire permis de conduire nag xam nañ ne à partir du 3 incha allah. incha bii nii nii nii. bi. waaw bii nii waaw bii nii nii nee nañu bii nii euh, bii dootul baax. Uh-huh. dootul dootul baax. donc euh, bii wala baax euh, maa ngi ñaan yàlla très rapidement man it ma am ci bu gaaw. déposé ko ma denc ko bii xam naa dama koy def sa porte benn benn kii. souvenir quoi souvenir. yow déposé ko Nicolas. déposé ko man man de damaa dem fële ñaari yoon. Mm. jaay ay 5 heures du matin. Mm-hmm. ah ma bañ sacrifier sama matin bi rek. waaye nag suñ <coughs> di ma nag ak maa di moom mm-hmm. <laughs> dina ci am bu bett de parce que dama na nga dem Cissesse wala Lat-Dior tout heures du matin pour ren pour bindu après 10 heures wala 11 heures ma ñëw pour pour ñoom donc bëri nga ci ay morom raison pour laquelle tey euh, ñu yëkkati euh, sujet boobu euh, parce que d'habitude dañuy gis ne Sénégalais yi dernier moment la ñuy xaar pour mën a faj seen i aajo fekk ne délai joxoon nañ leen délai parce que gis nañ ne lancé nañ ko depuis le 3 septembre 2018 3 septembre 2019 ay fan moo ci des am na reportage bi nga xam ne Fatima defal nañu ko démb foofu la ci foire parce que gis nañ rush bi dafa bëri lool am na si ñoo xamante nii dañ fay fanaan dañuy dem seetaani reportage bi dellu si waat bërëb bi ñu jagleel wàllu laat lu jëm ci permis yi ak yu ni mel te ñu taxawal ko fii ci foire bu dakaar fees dell ak i doomu aadama la def loolu nag mu nekk lu jafe ngir ñi fi ñëw ndax foog rek ñu changé seeni permis balaay ñetti fan ci weeru septembre bii ñu dëgmal. permis bi danga ko passé boo defee rendez-vous su baaxul ñu dàq la ba keroog ngay mi bu jeexee da ngay jënd timbre taf ci man dama ni mun nañ koo def ni ko olof di waxee. Goneg Mboye xaar ko ca taatu ndaa la muy permis bu ñu bëgg a jàpp bu baax ak bu baaxul nañu bàyyi ba permis yi jeex kuy renouveler si is comprendre bu dee baaxul ñu tëye sa permis man suis pour is comprendre nga mais doo passé sa permis ba pare permis bi nekk sa poste war a jeex 2024 ou quelque chose comme ça ñu xëy un bon jour ni la may nañ la délai une semaine bien vrai que ni lancé nañ affaire bi yaa un an mais nit yi amuñu occupation pour changer ay pièces fi ñu toll dañoo sonn carte yi ñu ngi nii lan la ay carte d'identité biométrique lañ ñuy wax ay carte yoo xam balaa nga ko dugal sa poche mu damm permis noonu lay demee. xale bu góor bii moom mi ngi jóge fu sori mi ngi ñuy xamal ni def na ci bërëb bi lu tollook ñaari fan ngir yeesal permis donc man nag condition bi ñu nekkee fii man moom naay déplorer parce que par exemple man maa ñëw fi à 2 matin bi ma ñëwee. ama gan ay 2 heures du matin démb laa fi ñëw ama grande surprise ma ñëw ñu ne ma amul amul rang amul pindu amul dara te damaa yaakaar ne askan bu toll nii soo leen oowee war nga organiser de toute ko de kenn du sonn maanaam ku ñëw ci buntu bi ñu bind sa tur jox la ticket nga dem toog mais quant amul rang bu ñu ubbee buntu bi ñëpp njëkkante daw gis nga ci laa blessé samay morom yu bëri aussi ci lañ blessé dem nañu faju ji te ñi loolu bi mu amee amoon assistance médical sapeur pompier nekku fi assistance médical amu fi. tey jii nag nguur gi dafa war a gën a yokk li mu ponk yi ngir askan wi mën a yeesal seeni ay permis de conduire balaa ñetti fan ci weeru septembre. mi quatre ans quatre ans nit ñi mënuñu ci wàññi wàññi mënuñu ci déposer permis ñoom ñëpp Sénégal ñëpp déposer noo permis Sénégal ñëpp am oto Sénégal ñëpp am permis jigéena góor ñëpp am permis ñëpp am oto kon nag euh, cela veut dire que permis soo ko defee da def ay centre yu bëri ay centre secondaire pour nit ñi mën a am accessibilité pour mën a dem déposer ji xam soo amoon ay centre secondaire ay centre secondaire waaye nga def benn ñaari centre wala ñetti centre def euh, boo maraîcher def biir dakaar def euh, fii foire bi ñett waaw mooy boo maraîcher mu ne mu nekk mu nekk ñetti centre ñetti centre est-ce que est-ce que 16 mën nañ mën nañ ci mën dem déposer un an un ba mu pour seen permis génn. très donc mu nekk lu pertinent dégg nañu euh, ñi nga xamante ne ñoo ngi foofu ca CICES euh, li ñuy dund métti trop tamit junj nañu ay yëf yoo xamante ne bu ci nguur bàyyi woon xel dina tax yëf yi gën a yaatu. Euh, ni nga ko waxee tey nguur gi laay laay laay àndal tey damay dal ci kaw ak askan wi parce que. Euh, Nicolas mënuñu jox délai un an ay nit depuis le 3 septembre 2018 ba 3 septembre 2019 léegi mu jot ay 5 jours de ci ba léegi yow mënoo déposer sa permis de conduire pour nga am euh, permis numérisé mais la communication fait défaut hein? mais attends un an un an ah mais bi fan lañ doon communiquer. mais ñu ngi doon communiqué nañ ci 2STV di jàllale ay bande annonce pour sénégalais bu ci ne di ci bàyyi xel ñu ut ay heures stratégiques yoo xamante ne dinañ ci teg seen ay communication. di ñëw ci plateau télévision yi di nangu di fay tuuti wax yooyu tamit waroon na nekk luy dimbali population yi ñu mun ci bàyyi xel. est xam nga nekk ñu ci population boo xamante ne nii euh, matadi daf fi war a am wala sens de responsabilité bañ fi am ba ku ci nekk dangay xaar ñu ñëw fekk la ba si sa buntu kër ne la lii ak lii nga war a def. est-ce que loolu yoon la parce que mënuma comprendre bu ñu nee permis yi d'ici un an dafay invalide. donc yow war nga mën a jël say précautions même bu fekkee des na benn 4 mois 5 mois nga déposer ko à l'avance nga xam ne di nga ci jot parce que y a des gens yoo xam ne dañuy fanaan fii et le pire da ñëw nga fanaan fa nga toog ba ci ay 11 heures ñu ne la problème de connexion dafa am donc loolu tamit xëy na peut-être côté boobu côté nguur gi la mais askan wi ci boppam ñoo war di jël seeni ay précautions dès le début ñuy dem euh, di déposer li nga xam ne moom lañ leen soxla parce que ñëpp xam nañ wut kayit Sénégal moo gën a metti Samb loo ci xalaat. waaw man je pense que damay abord dans le message li nga c'est vrai que Sénégal yi habitué nañu mhm. mais il appartient au pouvoir aussi jëlee décision boo xam ne dafa jëm ci askan wi. Mhm. ñu créer les mhm. pour que kenn ku ne fa nga xam ne lii kat bërëb sangam lañ koy defee délai sangam. mais j'ai l'impression que depuis dernière déclaration ministre bi sax. ci la affaire bi jógaat nit ñi mel ni ñu ngi koy soogee a je pense que yi. am na communication bu ñu doon def doon na tax Sénégalais yi dinañ leen éviter. galère bi ñuy dund fële ci CICES. la délivrance des peuples parce que tey jii nii ñi ngi wax ay waxi accident nekk ci contexte boo xamante ni dafa jafe ñan ñooy dawal dañ koy xoolaat ñi war a dawal dañ koy xoolaat mais Sénégal tey jii nii ba ci permis bassan gi ngay gis amee ko fi am na anam yu yomb yoo xamante ni ji nga ko fi joxe mhm. nit dem na ci li ñuy wax li nga xamante ni jot nañ ko ay information yu ñu tout le temps nit mën na yor permis sax boo xamante ni amaana peut être mën naa bañ a yaa ngi dégg dem feneen wala déet délivrance su mhm. voilà délivrance u permis yi nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax parce que jéey ci tali bi bari na d'accord président waaw bon man su may rëb mooy

xoolaat ñu waxtaan ak population yi ñu vraiment yokk délai bi pour ñëpp mën cee gis seen bopp fi ma koy jeexale rek mooy carte d'identité yi bañ ko doon renouveler koñ boo dem di nga fa fekk soit sous préfecture wala mairie boo xamante ne fa ngay renouveler te lu yi dina metti waxuma nag 3 points euh, ci Ndakaaru Njaay lëmb c'est dommage est-ce que peut-être aussi li ci coût bi parce que benn machine bi rek ça coûte 1 milliard 1 milliard de francs CFA tamit. parce que yaa nit ñi dañuy fay. Mm-hmm. c'est combien de milliards. waaw nit ku nekk 10 000. Mm-hmm. ñaata Sénégalais ñoo am permis. et que ba léegi ne nañu bu paasee da fay 40 dem jam ñaajo loolu fu ñu jëm. waaye <laughs> ci Kumba. le 3 dina xumb de dana mel ni. dana dana mel ni bii PDG El Hadj Ndiaye ubbee télé. ah non en plus liggéey policier yi aussi dina xaw a neex ah mën nañu ko jàpp. neex ah waaw oui. ndax la du ma si. Ah, dina dina métti waaw dina neex. ñu ngi lay sant di la gërëm dégg naa la fa nga waxee dégg naa la dégg naa la waaye damay def comme si dégguma la ah très bien. donc ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax a baax euh, en 30 secondes s'il vous plaît le temps est voilà. merci le mot de la fin. di woo ñëpp rek à Grand Yoff permanence par Babacar Mbaye à 16h le pharmacien il est là pour la population. pour seen wér gu yaram pour conseiller leen. Eh pour orienter leen pour jàppale leen ci lépp loo xamante ne soxla nañ koo xam ci seen wér gu yaram. macha nga ne koo doon ah. Hmm? Euh,

di gërëm bu baax les sénégalais de l'extérieur de la diaspora ñu bëri jamono ji ñu ngi fii euh, on souhaite un bon séjour au Sénégal merci beaucoup à Racky Traoré euh, kon boog mbokk yi diggante ceebu jën suppu kanja maafe dooma daa lu mu ci mun ci doon nous vous bon appétit rendez-vous demain inchallah toujours dans ce matin c'est à nous mais programme baa ñu continuer di wéy sur la 2STV à demain Yeah.